من في دلا زره إن جندا من خياف قد سرى حميد حميد حميد حاز أفعال تفضيل الرجاء كل برايا يوم مصدع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, mbokk yi yéen ñëpp Sidi Bakar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngi nuyu mbokki jullit fi daje yëpp. nee mi ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp. teewati nañu fi nañu fi daan teewe. teew gu ñu fi mës teew ci ndigal la. teew gu ñu fi mës teew nag ci ndigal la. babu tey bii tey bii ci ndigal la. waxtu wii daaw ñu ngi fii. waxtu wii daaw ñu ngi fii. ci si. ci ñoo ngi fii. ci ndigalam. ci ndigalam. di waxee nag turam. moom ak mbokkam mi toog. mu yebal leen fi ci waa kër maamam yii koy déglu ñu ñëw indi nuyoom ñu ñëw nag indi nuyoom indi it ziyaaraam boole ca nag di ñaan te yàgg di ñu yónni ñu nit ñu yàgg fi di dox yónnent yi am na solo alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw yàlla ak yonent bi gannaaw yàlla ak yonent moo ñu fi dajale li fi dajale ndax li mu ñu fi dajalee lu mu seet la ba noppi settantal ko ba mu doy ko mu tànn ko mu lonk ca boppam woo ca nag moom góor gi ku mu am ni ku bëgg na ma ni ku bëgg nag na ma fekk si alaa azimu leylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami uduulu waxu nitu yàlla nag dafay jegeyoo toujours ak waxu yàlla lu ñu dugal nag dugal ca charte ala azimu leyla alwiladati xisbatan doyoon na mu ni nag ida lam yakun naxwa alxaraami udoolu charte ba in alladina amanu wa amilu saalihat du ma ci topp yàlla nee kese nag doyuma fokk nag nga jëf boole ca ngëm ga Cheikh Seydi Hadji Malick nag loolu la tànn loolu lii may def nag lii muy def moom damay ubbi moom Seydi ne dafay ubbi jox nag gàmm gi borom gàmm gi moom borom gàmm gi mooy waxtaan ne waxoon na leen daaw ñun ñii fi daje ñépp bu ñu fi dajee kii kër lay tudd kii Abdou tudd kii Mansour lay tudd waaye moom nag mooy Cheikh Seydil Hadji Malick kon nag yëf yi ci kawam la dal ñu wax nag ni Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu tatonewul dara déedéet tatonewul dara inna alladina qaalu rabbuna allahu su mastaqaamu loolu la ci yàlla teg soog caa digal soog caa dugal la muy digle nag Cheikh Seydi Hadji Malick nee na kon nag walaysa nafun ala xubbin bilaa amalin gëm naa yàlla te jëfuloo jubuloo jariñul dara ca yàlla Cheikh Seydi Hadji Malick nee na walaysa sa nafoon bëgg naa sopp naa gëm naa te jëfuloo waaye déedéet wax nag du compal saaku du ko fees mukk wàcc na ñépp moom góor gi walla boog wàcc na moom leeral na wane na digle na jëf na wàcc fi njabootam ñu def li ñu def ñépp teg ci seen bët dellu seeti nañu dellu seeti nañu ca tànki daaw ya toog nag palaasu mag ñi feesuñu ko nag waaye nag du tere nag ñett ñetti bërëb bu ne la fay ñag moo fay ñuul ñëw nañu ci turu Cheikh na Ahmed Tijani Tiwaawan yëpp a ngi riir tey. Tiwaawan yëpp mi ngi riir tey. waaye lii riir yëpp. waaye lii ci ndigalam lay demee. ci ndigalam rek lay demee. moom la ko yàlla teg ci loxoom. yàlla na yàgg ci loxoom. bi jaahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa léegi nag. ñu ngi nuyu ñëpp. di ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp di ndokkeel ñëpp di massawu coono yi di massawu coono yi daanaka massawu jaru ko daanaka sax massawu jaru ko ndax ndax kii nga xam ni moo tax ñuy sonn nga xam ni moo tax ñun ñuy sonn muy yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma sax sonn waaye góor gi moom jar na dee waxtuma la ak sonn alhamdulilahi rabbil alamin ñu am nag ko baax góor gu mel naka Cheikh Seydi Hadji Malick lu nit waroon a gëstu ji wala boog mu war koo jéggi dajale na lépp juub ci benn bërëb yi niroo nag bare na waaye yi bokk lu néew la bés yi ki tax bés baax ci bés yi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bésu juddoom bii bésu juddoom bii nag kenn judduwul na moom kenn judduwul na moom màggaayu bés bi màggaayu bés bi du màggaayu guddi gi du màggaayu guddi gi màggaayu yonent bi la yonent bi nag loo mën a wax loo mën a wax daal ni ñu koy woyee rek ci wolofal bi loo mën a wax doo mën a paase kii baax na lool rek la moom la ñu woy léegi Cheikh Seydi Hadji Malick nee na yonent bi kat yàllaa ko façonné yàllaa ko façonné moo ko muul moo ko melal ni mu mel ba noppi nag wëlbatiku di ko tag ndax yàlla ndax yàlla kenn du moom kenn du moom kon lu jóge ci moom kon nag lu jóge ci moom du nekk kenn du nekk kenn waaye nee na sama jaam bii sa sama jaam bii di Muhammad bi ma toogee ba xam ni war naa am euh, sama nguur war na taxaw bi ma toogee ba xam ni man yàlla sama nguur war naa taxaw lan moo ko mën a taxawal mu ni man maa ko mën a taxawal te man ëpp naa xelu nit mënumaa jàkkaarloo kenn ma coppati nag ci sama bopp wa innahu id araada allahu nashatana abana min nuurihi nuuran nabil alami sallallahu alayhi wa sallam cosaanam du doomu aadama yàllaa toog ba mu neex ko mu dugal ko ci doomu aadama wàcce ko ci kanamu nit ñi yónni ko bi mu ko laataa yónni nag fu nekk jaarale na ko fa waaye daal ñaar nag daje ci borom guddi gii kenn mënula am lu ni toll. waaye Seydi Hadj Malick it radiyallahu anhu. waaye Seydi Hadj Malick it radiyallahu anhu. du cuune du cuune de. fi mu tibbee. fi mu tibbee. bare na ku bind. te doore woo fa. fi dara dul dara. fi yàlla rek na fi. ba ba mu dindee dara ci boppam. ba mu dindee dara moom yàlla ci boppam. namm ca dara namm ca dara nag. fas ko ko yéenee def. def ko ko denc ko ca. di nekk waxtu. foofee la góor gu baax gi doore muy Cheikh Sidi Hadji Malick. ñii doore nañu ci. yonent bi génnu màkkaam. ñii doore nañu ci. juddoom ñii doore nañu ci. feram. ñii doore nañu ci ak nampalam ñii doore nañu ci ci xareem góor gi Cheikh Seydi Hadji Malick ni man bàyyi naa leen fi maa ngiy doore ji fa yàlla doore fa mu ko jële nag ca boppam foofa laay doore man Seydi Hadji Malick foofa nag xam-xam bu bare yóbbu fa nit de ittaqullaha wa yuallimukum joxal yàlla sa bopp mu xamal la lu mu xamalul kenn góor gi nag jël boppam nag jox subhanahu wa taala yàlla daal di koy xamal te yàlla nag wax na ni bu leen nax seen bopp li ngeen digaale di ci naxante tama bokk ci ku ma ci boole cuune nga ndax man yàlla kenn mënumaa nax yuxaadicuuna allaha walladina aamanu wa maa yuxaadicuuna ila anfusahum wa maa yashcuruun looy defal yàlla dugal ca sa bopp wala sa bakkan wala sa xalaat di ca lal dara juum nga bu ca boole yàlla yàlla daal ne ku ma ci boole rek nax nga sa bopp góor gi nag Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu yàlla nañu ko yàlla fayal góor gi tibbee nag fa mu tibbee ñëw nag wax mu tànn kii tànn guddeem gi def ko bésam woo ci ñépp ne yàlla amul lu bon lu baax rek la am la mu baax lépp la yàlla baax li lépp nag ba nga mën ko melal ba nga mën koo melal ni nii la nee na loolee jël na concentré ba yàlla jël na concentré ba def ko ci def ko ci ba muy bind ba muy bind yent yàlla Muhammad moo tax moo tax mu joxoñ ko mu joxoñ ko nii walakum walakum fi rasulillahi iswatun xasana mooy xudwa bi mooy xudwa bi nag mooy royuwaay bi yàlla nee na ku bëgg ma gërëm la nuru nurulul sayyiduna muhammad cheikh seydi xaaji nee na rajaul nag baraaya yaakaaru mbindeef yi ëllëg ca kanamu yàlla fa nga xamee ni ku jóg ni nafsi moom mu jóg ni ummati nee na foofee nag raj-raj la googee kañ fay yaakaar mooy ki nga xam ni yàlla jël na xeeti mbaax yàlla xeeti mbaax jaxase ko di composé di composé di composé ba lépp mu dajale ko nag def ko benn def jëmm muy Seydina Muhammad min kulli wasfin looy melal ci àddina naan lu baax la xamiidin muy melokaan nag woo xam ni ku ko gis kontaan ca ku ko déggit bég ca xaada jikko woon ko rajaa ul baraaya may googee nag mooy tax ak dayo ba moo tax moo tax mu nekk rajaa baraaya yow ma musdaxami su ko defee nag nit ku nekk ku ne nag seet nga yow la la doy seet nga it la la neex nga nekk ca yow yàlla ni la nekk ci daañu daje waaye man loo ma indil te du li ma bëgg duma la faale yowma laa yanfau yowma laa yanfau maalu boo baree alal yàlla ne ci man la jóge wala banuuna barey doom faalewu ma ko illa man ata allaha bi qalbin salimin alqalbu salim nag moo di xol boo xam ni yàllaa koy vérifier fekk ci boppam reconnaître boppam ni moo nekk ci yow ci sa xol moo tax góor gi Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu daan wax naan dañuy nettali moom dégguñu dañuy dégg nettali rek moo daan wax ni ah Malick day fas na yéene du ànd ak nit mukk ba àgg ca kanamu yàlla ñu naan ko moo ka mu àndaloon istabara alladina tabaxu man min alladina tabaxu tubixu yàlla du ma ànd nit teeri ca kanamu yàlla mu naan man li ma dal yaa ma ko teg Cheikh Seydi Hadj maa ngi ne loolu ko def moom góor gi nag Cheikh Seydi Hadji nag ni nag moom lam baax la lépp jox na ko yonent yàlla Muhammad ne bërki biig rek waxtaane nañu ko ñu jàng suuratu nëj mi jàng ca isra jàng ca isra fa yonent bi fa yonent bi deme ca boroomam ba àgg ca moom foo xam ni ku fa àgg fekk fa loo dul fekk fenn nattu la nag yàlla nekk ci kanamam yàlla nekk ci kanamam mu taxaw ci kanamam lu ko yàlla wax daf ko nattu xool ko geesuwul xeful xippiwul ndekete li xadara bi di rëy rëy rëy xamul moom yonent yàlla Muhammad lu fi ne ki fi indi xadara bi rek moom lay xool moo tax mu ni ko maa zaaga albasaru wa maa taga maa zaaga albasaru wa daal ca dëgg dëgg dëgg mat na li ma ko doon doyee fii ma ko indi ak ni mu mel xoolu fi dara xemmee mu fi dara lu dul man kenn rek man yàlla mi ko fi indi kii mat na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne waaye nag ci lenn rek ci lenn rek la ko yàlla tagge tudd ko ca tudd ko ca yëkkati ko ca mu di jikko jikko ja nag jikko ja nag dafa am ñu ko firee ci ñaari anam benn bi dañ ni. dëgg-dëgg dëgg-dëgg. yaa gën yaa gën a baax borom jikko yi. yaa gën a baax borom jikko yi. ñu ni déedéet. dañu ni. yàlla dafa ni. bu ma juugee jikko yu baax yëpp. bu ma juugee jikko yu baax yëpp. sallallahu alayhi wa sallam Muhammad lay jël teg ko ca kaw. wa innaka la ala xuluqin azimin kon nag. sunu góor gu baax gi tànnalee guddi gu mel bu ñu tànnalee ñun guddi gu mel nii ñu dox ko fan yii yëpp ñu nekk ci ñu dox ko nag fan yii yëpp ñu nekk ci moom wallahi mu dugal ci mbaaxam nag Mouhamad Busiri mu dugal ci fukki fan yi baaxata ak ñàkk kañaan waaye moom góor gi bind na waaw waaye nag mu dugal ko ca mu dugal ko ca nag jël ci waxam jël ci ne moom mii rek wax na keroog ni benn guddi burdu benn jar na jar naa fekke te toog nag jàpp sa njàmbur ndax yàlla dafa ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Mouhamad Bouchri ni dafa mel ne dafay toppandoo nag Cheikh Seydi Hadji Malick ni yàlla daal ndegam yow yaa santaane nag julli ci yonent yàlla Mouhamad maa ngi lay ñaan ba julli xewagul commencé di ñu jullil ci yonent bi yow ba julli xew ba julli xew ñu nga continuer ba julli xew nga continuer maa adama allahu mawjudan wa awjada maaduman salaatan dawaaman laysa tanxasiru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 ما دام الله موجودا أوجد مقدوم صلاة دواما حسير مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله ne bu ko defee nag ne ah mi ngi bëgg a guddal nag te guddal gi nag daa daanaka matu ko borom yëf yaa ngi ni toog ñuy sant nag yépp góor ak jigéen gan ak dëkk njaboot ak dëkkandoo ñu ngi sant ñëpp bés ngi nii boo xam ni bu dee ñëw wallaahi Tiwaawan kenn dootul nekk ci jàmm ñépp la seen fit di dem ndax ragal gàcce rek ak échec nag waaye fii ci zawiya bi rek moom wax nañu ni ñu bu gàmmu dee ñëw waaye leeral leen seen kanam rek. yaatal seen dënn. yaatal seen dënn. seen kër. setal seen kër. bés bi am na borom. wallaahi bés bi am na borom. te borom mën na boppam. kon sant yàlla. kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax. di sant euh, gouvernement. sant nag gouvernement. di sant euh, euh, ñi topp ci ñoom. ñi nga xam ni ñoo topp ci gouvernement bi ñoom ñëpp ñoom it ñu ngi leen di sant. doore ko ca président ba ba ci alkaati yii ñëw ci bés bi taxaw ñoom ñépp kenn ku ne la nga am def nga ko ci bu dee doole bu dee pexe bu dee xalaat ak nag xale yii ñëw di organise ñoom it ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla gàmm gi yàlla bu mu nekk suñu mujj gàmm guddi gi it yàlla bu mu nekk sunu mujj guddi waxtaan wi it yàlla bu mu nekk sunu mujj waxtaan Seydou Bakar ne ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñaan nag sunu borom tabaaraka wa taala fa nu doore ba fa ñuy yem yàlla na yàlla nangu lépp te wuutu nag ci wuutuñu nag ci yonent bi jox ko ko muy hadiyaam yàlla na ko yàlla def yàlla jotal yool bi nag Cheikh na Ahmed Tijani yàlla jotal yool bi ay muqaddamam ku mel na ka Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh El Hadj Omar Cheikh Fahima Yoro Cheikh Seydi Hadj Malick ak ñi mu jamono ñépp ci wàllu diine ak tariqa Cheikh Seydi Hadj mbiram yaatal na ko ñépp la ci boode ma ngay wax ca ca ca wax ca واغفر لنا ولمن من بيننا نصب من جهة الطين أو في الدين يالله loolu moo di yàlla woote na ñépp dégg nañu woote gi am na jamono yàlla woote yónnee ndaw ndaw la wax ñamu waxal ñu ko sami'na wa asayna dégg nañu waaye ñoo bañ mu yónnee waat ñooñu dégg lu ñu dégg la ñu dégg bañ ko déggee dañu ni sami'na wa ata'na kon nag lu ñuy fi defati yàlla jéggal nu ko xufraanaka rabbana eh, loolu nag am na fi yàgg na fi yàgg na fi it. Seydi Hadj Malick nag ni. Cheikh Seydi Hadj Malick bi yàlla wootee. bi jaare ko ci yonent bi ko ci yonent bi. kuuyu kuuyu. sama yoon sama yoon. kuuyuwul kuuyuwul. sama yoon waaye bu yàlla dee yërëm daal. tey jéggale na jéggale ñépp. min jihati tiini aw fi diini. loolu nag ñaanu mag la ñaanu mag la ñaanu nitu yàlla la yàlla la ku xam ci boromam ku xam nag lëf ci boromam lay doon nee lu tax mun la lëf ci boromam déedéet yàlla kenn mënu koo xam ba mu jeex kon nag ñu sant ko yoon wii góor gu baax gi Cheikh Seydi Hadji Malick moo nu ko ubbil moo ñu ci teg ku ko wàccul ku ko wàccul mën nga àgg de wane na it ni na it ni bu fi kenn naagu bu fi kenn naagu lu nit di naagu lu nit di naagoo amu fi man Malick Dey man Malick Dey li may wax sama boroom li may wax sama boroom moo di walaysa li amalun alqaaka yaa amali siwal mahabbati wa taadimi wa salami lii daal la am di ko jox sama borom ñaan ko nag la mu baaxle yàlla bu ma ump yàlla bu mu ump ku ma am dégg naa góor ga ñaanoon na ko ni yàlla foo nangoo sama ñaan nangu ko dencal ma ko ndax ëllëg ñi may àndal te bañ seen yaakaar tas su ma ñëwee lu ma fekk bokk ak ñoom kay kon nag ah, mbokk yi Sidi Bakar nee nag foofu lay yam gërëm nag ñépp nag gërëm ñépp wax nag Xaj Malik moom mi mu wax ko ni ko mango rag na bu yàgg mango rag na bu yàgg mango rag na bu yàgg bu yàgg la rag loolu moom seenoo ci yow sa yoon new ci loolu entre ñoom la ah yaa eh, sob kii waxal nañ la ko démb barakallah parce que ah, léegi الطاف اللطافة يا برد أحرى مولانا يا أكرم الكرماء يا أرحم الرعاة يا الطاف لطفا يا برد أحرى لنا يا كاشف الدائم ولا أسوى وأضراري مفيد أبعوري أنوار وأسراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرعاة شاء جل إلى عباد كانوا أعيار وأرار يا أكرم الكرماء أرحم الروع ويا الطبر لطفا يا شاجر ومطيع زاهد با السلام عليكم Serigne Babacar Sy noo ngi lay nuyu noo ngi lay ziyaara noo ngi lay ndokkeel tabaarakallaahu di ziyaara ñi fi teew ñépp tabaarakallaahu di leen ndokkeel itam di sant yitam ki nu may ñu teew fi dafa mel ni daaw bi nu fi dajee ñaanoon nañu yàlla may nu ñu dajewaat fi mu nangul nu ko te danaa dégg ci seen Cheikh Tidiane muy wax ni bés bu nekk boroom kër dana di bàkku ci dooley jàmbur te du ko yëg waaw mu ni bés bu nekk boroom kër dana bàkku ci doole jàmbur te du yëg ni ci doole jàmbur la nekk mu ni ndax di génn ni sa waa kër ma dem te ñëw nee boo demee ñëw rekk dafa am ko ci ànd bu ko weddee doo dem walla boo demee doo ñëw comme yàlla may nanu ñu teew fi ñu sant ko ñun ñi mu ko nangu ci ñun waaye ñamu ko gàntal ci ñoom ñu nekk barsax yal na leen fa leeru boroom guddi gi fekk ñaan nag mu maynu ñu teewe ko déwén yu bare bare Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu moo waxoon ni ragal yàlla du tax mu ñaan fan wu gàtt nee bu sañoon dafay dund lu bari di jaamu yàlla di nangu waaye guddul fan Cheikh El Hadj Malick bu nu la nee ba mu taxawee ba léegi nangami million la ci ay at te boo ci dundee téeméeri at ñu ni gudd nga fan moom dundul sax juróom-ñaar fukki at moom Cheikh El Hadj ma ni guddul fan waaye dundam sakkan na waaw ndax li mu ci def fa tabarakallah mu mel ni fa tabarakallahu li sëriñ Babacar mi wax ci moom yépp dëgg la dafa am bés sëñ Cheikh yebal ma wax ma ni ma sunu wayjur bu jigéen dafa faatu di soxna Fat Jeng Maysa wal xaaj Abdulaziz sëñ ma kay demal ma ci mu ne ma dinga fa fekk sëriñ Mansour ak sëriñ Abdou ak sëriñ Mbay Si Mansour ak Maodo bi ma dikkee sunu jaamu doomu bàjjan Moustapha Diop yal na yàlla yokk leeru bàmmeelam naka laa nuyoo rekk moom Moustapha mu wax ma ni ma am na waxtaan boo doon def bërki démb ci rajo bi mu ni ma yaa ngi ko doon def ci sa maam Cheikh Al Hadj mu ni ma sa papa Abdou dafa mujj wax ni nañ ko jox rajo bi mu uuf ko pour di déglu li nga doon wax ci sa maam fekk alxaji Abdul a ngi toog moom alxaji Abdul mu wax ma ni ma li nga doon wax ci sa maam foo ko déggee ma ni ko ci yéen ma ni ko ndax amul kenn ci yéen ku nu mës wax mooy kan seen maam rek waaw ma ni ko bu dee sëñ Babacar bu dee Cheikh El Hadj ma ni ko bu dee yow mi toog bu dee Alaaji Habib amul ci kenn ku bëgg ñu miin ko Maodo la ñu bëgg ñu miin ko euh, may wax ni moom Cheikh Al Hadj bu ma ko doon wutal tur ci wàllu tubaab damay wax ni ayatun min ayatillah c'est une énigme moom Maodo yéem wa rabbul kaabati dina ci moom cerveau bi di bëgg toj moom Maodo dana gëstu itam di laaj mag mu ma xam ni am na lu mu xam ci moom may waxtaan ak yow daan na def gàmmu Tiwaawan bu ñëwee mag ñi jóge ñëw ku ma ci wéetal dinaa la laaj waaye am suñu benn baay baay la ci ñun waaye cousin la itam ci ñun parce que boo demee gaaye ña fa bokk ak Cheikh Al Hadj Malick wàllu sax laay wax wala nga dem jolo ñii baay la ci ñoom ñii doomu bàjjan la ci ñoom ñii jarbaat la ci ñoom euh, góor googu ma laaj ko bismillah sëñ Alioune Mbacke Gaynde faatma boobu dëkkoon waalo eh, ñu di ko wax góor gi Muse Fall di bàyyi Cheikh Tidiane Fall ak xalifa ak Alaaji Mansour moom góor gi Muse Fall ma ni ko góor gi yéen ñi dëkk waalo te seen wëy jur yi mii noon Cheikh Al Hadj Malick ci njàlbeen ma ni ko nan lañ leen waxe ni noonu la meloon bi muy ndaw segam jaar na ci ak ndaw waaye gëw ma ne jaar na ci ndax dafay ndaw di mag moom Maodo waaye di mag euh, li tax ma ni géwma ma ne jaar na ci ak ndaw xam nga bi yàlla ne yonent yi dootuñu ñëw terewul mu wut raas boo xam ne taxul mu wut leen lu dul défendre xaqaayiq yi ñooñu kenn du leen tudde ni ay yonent waaye Cheikh Al malik Malick mës nañ ko laaj ni ko góor gi xanaa yow mursal nga mu wax ni xaw ma ñande waaye yéen mursal laa ci yéen loolu Cheikh El Hadj Malick wax na ko euh, ma gis ni euh, cheikh borom tariqa bi euh, dafa xërul woon ci ahada ndax xaqaayiq yi ko wër ñu laaj ko lu tëxiroo ci aada yi moom cheikh mu wax ni dama gémmi rekk yëg loxo bu tege ci sama diggu gannaaw di ma puus jëme ma ilal xadratil xaybiya waaye cheikh dafa wax ni kenn mayu ko fu mu tale dunde leneen lu dul xaqaayiq waaye loolu dal na Cheikh Al Hadj Malick parce que amul jotam euh, wax naa ni bokk na ci li ko gën a dimbali mooy teel a xam li mu bëgg waaye teel a xamit fu mu koy wute waaye teel a xamit nu mu koy wute ba résultat bi mu ci am mu am ko ci te dégg naa sëñ Cheikh Tidiane si mu wax ni Cheikh Hadj Malick dafa génn waalo di seen doom dellu di seen sang ñu nangul ko ko te la mu wuti woon la am bu ko amul woon nekk seen doom ba faw mu am lu ma seetlu ci moom mooy dafa am yu mu niru cheikh waaye am yu mu niru yonent bi sallallahu alayhi wa li mu bokk ak yonent bi mooy ñàkk xam way juram li ngeen di tudde njirim yàlla wax ni ku yëg ni moom nga ku yëg ni jërim nga danga amul ku la taxaw mu ni waaye boo amee ku la taxaw doo ko yëg yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka daalan fa hada wa wajadaka ailan fa agna fa ama alyatima fala taqhar wa ama saila fala tanhar wa ama bi nicmati rabbika fa haddith en guise de reconnaissance yàlla xéewal la nga sant ko dara nekku ci waaw waaye mu wax ni dukki ndeyam ak baayam de mooy nekk orphelin nit dana nekk orphelin te ñi ko jur di jur dund parce que dañ ko dul tal waxunu nga jox ko mu am doom jox ko mu lekk walla nga jox ko mu naan walla nga jox ko mu sol walla fu mu tëdd doyul mais yëgal ni doom nawle la boo ko yëgul na nekk ci biir kër gi mooy gën a nekk orphelin ki ndeyam ak baayam dundul loolu mu bokk kook Cheikh waaye itam fa mu nekkoon ci waalo eh, yërmande ak cofeel bëgg ko denc ni nuy dence jërim waaye mu teel xam ni ndeke atifa koo ci koo ci yar rey ko atifa kenn du ci yar ki nga bëgg a jariñ waaw sentiment li arab yi di wax atifa français di ko wax sentiment moom la wax ni koo ci bëgg yar yaa ko tayal loo ba faw loolu la Cheikh Al Hadj Malick découvrir moo tax mu teel génn wàll parce que xam na li mu bëgg xam na ni itam toog fa ñu di ko yërëm du ko arrangé mu déserté daw daara ju mu dégg mu dem wax naa ni buñ lay limal daara yenu dem aada réew mi moo tax ñu la koy limal mais Cheikh El Hadj Malick yonent bay ko nampal daara yi nu wax ni jaar na fa yépp li ko yonent bi nàmpal la taqamti ko waaw ah. mais dem na ci daara boroom daara ja dàq ko moom Cheikh El Hadj wax ni dafa mën a laaj mu ni moo ma tax a jóg laaj lu ma xamul moo ma indi ci sa daara ji mu ni ko jéggal ma sama daara wax ni kii bu fi yàggee dana ma tiiñal mu takk ay bagage yam wuti feneen euh, li mu gënoon a xàmmee te ma gën ko cee naw mooy li mu taxaw wax ni xeemeem àjjana taxul muy jaamu boroomam ragal safara yi taxul muy jaamu boroomam mu ni soxlawul àjjana soxlawul safara ci yàlla la bëgg a jot waaw ku jot ci yàlla fàtte àjjana ak safara waaw parce que yàlla leen dàq euh, may wax ni itam ku xamoon boppam la xam na it li mu liggéey parce que li mu wax ni li ma wóor man Malick mooy yàlla duma fi romb di tànn keneen mu ne xam naa li ma def ci ëttal ku dëgër fit la ndax xam boppam xam cëram may wax ni li mu taxaw wax ci kaadaru tariq xam nga dafa wax ni tariqa cheikh moom laa jël moom laa yaakaar moom cheikh tariqam laa jël mu ni waaye sama promotionnaire la cheikh waaw mu ni maag moom ñoo bokk fuñ nu formé cheikh alxaaj malik cheikh la wax de sëñ Babacar si wax ni ba mu ko waxee gëmoon naa ko parce que du wax lu amul moom Maodo waaye sëñ Babacar nee na keroog ba ma déggee muy wax ak Cheikh ñoom ñaar ñuy wax moom Cheikh El Hadj Malick sëñ Babacar ne daf ma yónnee Dakar biir Dakar. xam nga Maodo Cheikh Al Hadj Malick baraagam ba mi ngi dëkkoon fii ñu tabax tey ministère de l'intérieur foofu la dëkk moo tax ma ni du hasard bu ñu fa tabaxee loo xam ni mooy le soupape de sécurité de ce pays l'intérieur bu mu fa dëkk yi dafa am lu mu waxoon ñetti xew-xew dafa am bu njëkk bi moom Cheikh El Hadj Malick dafa waxoon ni maa ngi fii boof nen boo xam ne bu ma ko tostalee fu waay tollu fajar di nga dégg naasaril xaq bil xaq bi ci des mooy lu yéeme lu am dafa ame kurusam jublu penku gannaawam ñi ngi ko fi tegal ànd bu yànji ci suufu portemanteau mbubba mbodd ci ànd bi mi ngi amee kurusam soxnaam dugg si gis mbubb mi ci kaw ànd bi mu tàccu ni ko góor gi sa mbub maa ngi lakk Cheikh El ni ko yàlla rus naa lakk sama mbubb ñu yëkkati mbubb ma fëgg doom sax takku ci foofa ci ministère de l'intérieur la xewe woon bi ci des sëñ Babacar si nee na daf ma yónni ma dem Dakar dox li ma ko doon doxal dellusi si mu ni bi may dem moom rek la bàyyi ci ndég mu ni waaye bi ma ñëwee ba jub bunt bi ma dégg am ku muy waxal te arab la wax ne ma ne dafa am ganu naar gu ma fi wuutu moom sëñ Babacar ne ma toog di xaar gan gi génn waaye nee na ma toog lu yàgg Cheikh El Hadj ci boppam ubbi bunt bi ni ma ndeke ñëw nga ne ma ne waaw dama ñëw fekk fi gan mu ni ma agsi agsil ma dugg ci néeg bi gisuma kenn ma ne ko ah, dama foogoon di gan a fi nekkoon mu ni ma cheikh la woon borom tariqa bi sëñ Babacar ne ma ni ay ñii de seen yaram neexul waaye gis nga boo leen xamee nga jàng leen ci wàllu baatin li nuy wax les secrets mystiques nga jàng leen ci wàllu baatin xam nga cheikh radiallahu taala anhu euh, daan na toog benn magam ci magam yi ku ñëw ni ko dama bëgg nga laaye ma biir ci wàllu istixaara wax cheikh li mu bëgg ku ko ci defal istixaara cheikh ni ko bu ngoonee dinaa ko seet mag maa ngir toog di waxtaan ak moom jógeegul fi muy wax ak moom cheikh ni ko résultat istixaara bi dikk na mu ni cheikh foo ko jële mu ni ko allamani alfatixi li ma uxliq mu xam ni cëram la waaye cheikh alxaj malik boo bëggee xam nu mu toll dangay seet fa tabaarakallaahu njabootu boppam di ay doomam kooku ci tudd mu saalit may wax ni euh, ku yéeme woon la ci wàllu yar yarin yarin pour sellal ki mu yar dafa dafa li ngeen di wax sans sous mesure moom Maodo daf ko amoon ah. euh, soxna su tedd si maam sa féetu ñan yàlla na yàlla yokk seen leeru bàmmeel daf ko mësa laaj ni ko góor gi lu tax xeruloo ci ñam bu am kaani laaj ko Cheikh Al Hadj Malick Cheikh Hadj ni ko parce que kaani dafa bokkul ci garab yi yàlla ni am na aljanna moom Cheikh Al Hadj mu ni ko kaani bokkul ci garab yi yàlla lim ni am na aljanna waaye mu dabaatal wax ni xaraamul waaw moom Cheikh Al Hadj mu ni xaraamul dama amee tàngat te kaani dafay yokk tàngat looloo tax eh, duma ko jëfandikoo ma ni bi mu njëkk a wax moo tax mu bàyyi ko waaw ma ni ah, am na góor ñuy ñaan tëmbal tëmbal waaw may ma tëmbal di ko wax jigéen yi yu ni ko góor gi lu tax xéroo ci soow mu ni ñàkk xam ndax nag bi ñu ko ratt dafa ruur walla déet lu mu mën ci bañ koo naan dina ko def waaw bu rëccee ba mu naan ko dinga ko yërëm ndax ni muy jële catu kaalaam di ko caw boppam walla mu woñ bakkanam parce que bakkan bee ko ci yóbbu waaw moom Cheikh El Hadj mu wax ni yi la dagan nee daggan yépp boo ko jëlee ba mu jeex neena dinga ubbil bakkan bunt te doo ko yëg yi la dagan mu ne te boo ubbilee ban bakkan bunt nee bu duggsee bu yaatoo rekk bëccëg dana dikk mu woo seytaane ngan moom bakkan te nee na bakkan ak seytaane xajunu ci doomu aadama eh, eh, ku xàmmee woon la waaw ku xàmmee woon la eh, daan na wax ni bakkaar bi la seytaane yóbbee moom la la yàlla gën a mën a baal bakkaar bi la sa bakkan yóbbe waaw parce que nee na xam na ni seytaane ngand la te ngand koy të xam na ni boo ko téyee rek ngand nga waaye itam bari na ku la ni seytaane mu mën te tooñ na seytaane parce que ak seegul ci moom bakkanam a ko dóor njiin bari na ku ni seytaane mu mën seytaane jegewu ko mukk gis nga Cheikh El Hadj dafa soxoroon ci bakkanam waaw dafa geet bakkanam ba bakkan bi ragal ko amul fu mu ko jaar euh, gis nga yàlla ku mën a tëkkoo la waaw ku mën a tëkkoo la waaye fa muy àgg ba gedd doomu Adama fa muy àgg ba gedd doomu Adama dana fekk bàmmeel sax bu ñu la ca suulee bàmmeel ba jéppi la ah. idhaba ila firaun innahu tagha mais dérapage la xam nga mbew te xeetu dérapage la ki mën a contrôler bakkanam du bew mukk waaw moo tax bi mu bëggee tàllal loxo na pour une dernière fois te booba fekk na bakkanam jiital ko mu wax ni kaay leen ngeen dawal ma ci parce que bëgguma mu alko waaye booba bakkan dana àgg foo xam ni kenn rek lay déglu mooy ki koy jey mooy ki koy jey mag ñi mësuma gis ñu mel ni ñoom gis nga sëñ Babacar Sy dafa mës a ñëw ci moom ni ko papa lan nga soxla sëñ Babacar Si ni ko man mu ne ko waaw mu ne ko nga xam sama soxla mu ne ko kon nga dee ba ñu wat la billaahi mu ne ko man sama soxla kenn rekk a koy xam boroom raw du bële Cheikh El Hadj ah, ni ko moom rekk mooy xam sama soxla waaye loolu ci fonk sa kilifa yam xamuloo ni wut sa ndamu kilifa jar na lu ne ak loo ko jënde yàlla du la ci def jox bakkaar xam nga bu nu la laajee mbooleem ñaan yi am ñu ñaan ko pour musiba ban ngay wax ni moo ci gën a grave ñaan yi ngay ñaan pour musiba am ñu ni la ban moo ci gën a grave nga ni rabbi laa tadar al ardi min alkafirina dayyaara parce que dafa ñaan ñu faagaagal àdduna waaye bi ko ko yàlla layyiloo mais bi mu ko layyee lépp ci boromam la dellu innaka intadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara waaw ah. ko parce am naa lu ma dix siècle di la woote lu ma fukki siècle muy wooteel boroomam quarante personnes ko mu ni yàlla faral àdduna bi mu ne ko lu tax mu ne ko parce que ñii fi nekk fu nu gis ku jëm si coow ñu wàññi ko mu ne ko te itam jur lu baax ndax yaa yàq seen fond xam nga yàlla du yàq forme fond lay yàq lu ca tegee ci yàqu looloo tax nuux amu ca bàkkaar malheureusement malheureusement ñaan nga dafa waroon a am weexal gu mu jox boroomam te laajul yàlla luy sa weexal yàlla jëlal boppam weexalam muy doomam ja des ca ndox ma mu jeex tàkk waaw yaa bunayya yaa bunayya yaa bunayya irkab maana wala tarkab maal kafirin wax ni sa abi ila jabalin ya'simuni fu muy jaar parce que bés dana dikk pexe du musal kenn borom bi rek kay musal moom ku mu bëgg nga mucc nga mucc wax na ko wax na ko eh, yaayu yonent yàlla Muusa wa awxaynaa ilaa ummi Muusa an ardiihi fa idaa xifti alayhi fa alqiihi fil yam waaw nàmpalal ma musal walla nga sànni ma musal bu ci ne yomb na ma bu dalee sa xel nàmpalal mais bu dalul sa xel sànni waaw fa idaa xifti alayhi fa alqiihi fil yam wala taxaafi wala taxasani inna raaduhu ilayki wa jaaciluhu min al danaa la ko delloo si sain et sauf du yem foofu sax dana am lu mu indiwaale lu ma ko may sërite bu duun ndax danaa fexe mu nekk ci ñi ma yebal ñuy wax ak nit ñi mais pour bañ Moussa juddu Firawna rey na sept mille bébé pour bañ Moussa judd Moussa judd mu yar ko ci këram te mënu ca dara parce que loolu la yàlla dogal pour won la ni euh, maa ngi doon wax fii Cheikh El dëkkoon ca ministère de l'intérieur Eh, dafa triste keroog ba ñuy déplacé baraag ba waaye magu lébu yi wax ni buñ ko dajji nañ ko sempi te bu tiwil yi teggee ko magi lébu yi sempi baraag bi gàdd ko mbartalu corniche bi ak seen sikkar mag ñépp nee nañu keroog baraag bi dafa mel ni dafa am ruux bant bu wadd ci baraag bi rekk mag ñi daw for ko doggalan takk ko Seex Alxaaj Malik tudd Madina tudde ko Madina waaw moom bu fekkee dangay wax ci moom Eh, dangay jël njureel teg ko fële jël fanatisme teg ko fële indi ko en tant que homme intellectuel en tant que un serviteur de Dieu ci ngay xam nu mu toll waaw euh, magi yi bu ñu mësaan bëgg a waxloo sëñ Babacar dañu koy poser question ci Cheikh El Hadj Malick la journée du noppi dana ci dem ba nga defee ni fanweeri at la am ndax jawarte sawar pour wax kan mooy Cheikh El Hadj euh, ma wax ni ñi mu yar ñi mu yaroon dem nañu ba fa ñu yóbbu seen bopp ci wàllu cellte doo xam ndax dañuy xëccoo ak cell malaayika yi walla déet ndax am na kenn ci ñoom di sëriñ alin Guèye daan na wax seen cheikh ni ko sama njàpp suba julli naa ci gee ba tey parce que yombul jàpp ci suba fajar garde njàpp mi ba julli ci gee suñ Cheikh ni ko mais lu tax nga ko daan def mu ne ko dama daan bañ sa maam woo ma ma dem wuy ji fekkul ma ànd ak njàpp mu ni ko lu dul nag bi ma déggee moom Maodo mu wax yool bi nekk ci yeesal njàpp mu ni ci lay def rekk fu ma yaatu daw yeesal dellu bala mu may woo mais sëñ Babacar si daan na wax ni chel Hadj Malick nga gis ko muy jàpp rekk nee na doy na spectacle ndax cellaayu njàppam bi eh, ma ko déggee mu wax ko dinaay faral di def bu ma jàppee wax ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul allahuma jaalni min altawabin wa jaalni min almutatahirin wa jaalni min ibadika salihin ma teg ca ni yàlla maa ngi lay ñaan sama njàpp nga yéegeel ma ko ci cellaayu njàpp Cheikh El fu ma jàppee dinaa ko wax yàlla xam na ko euh, loolu fa tabaarakallaahu ci ay taxawaayam la bokk mu wax ni xam nga bu ñu nee gàmmu rekk dangay ngay defe ne gàmmu rek la sédd yonent bi waaye ci gàmmu la woo ñi mu am waaw wax ni bu ma sañoon ku ma am bu guddi gi ñëwee bu dul ngànt piir di ñëw pour bokk kook man ba mu ko waxee léegi yàlla nga ko ciy sagal waaw yàlla nga ko ciy sagal bu jotee ñépp gàmmu Tiwaawan gàmmu Tiwaawan gàmmu Tiwaawan sëñ Mbay Si Mansour maa ngi koy wax léegi ma ne ko sëñ bi def mel ni dangaa sonn mu ne ma gëmmentu laa def waaw ak mar mu ne ma gëmmentu mar daal def naa ko waaye rek comme moom eh, coono bu nu yaakaar yiw la doo yëgati coono ba doo ko yëgati mukk wax naa leen fi daaw mësuma gis góor gu mel ni góor googu ci parasol bi waaw rekk ci wattu wattu wattu waaw wattu yàlla xam na ko waaw euh, dafa daan wax ni ku ragal àq la bu ma jógee jàkka ja moom Maodo mu ne bu ma jógee jàkka ja nañ ma wax ku aaye woon waañ wi ñu ni ko diw ci jigéen ñi mu dem ba ca buntam mu taxaw ci buntu ki aaye woon sant ko ñaanal ko yàlla baalu ko ak waañ door dellu këram الشيخ منبع الإرفاق الخناع يوم المجازات خيرا يا ابن عثمان فكم وهبت مئات كم وهبت ألو فالكم وهبت كراد يا ابن عثمان موضع هل الشيوخ وإن جلت مراتبهن إلا التلاميذ إذ لاقمنا عثمانا waaye itam mu waxoon moom Cheikh El Hadj Malick wax ni na ma ko bëgge woon bu ni amee woon kon ñi ma am ñëpp ma dina la juddoo moom Cheikh El Hadj Malick mu ni dafa doon dem Medina pour dëkkaaleeg yonent bi ba faw ndax cofeel ak yaakaar ak pas-pas waaye nee na bi mu demee ci raw rawdu yonent bi bés mu xëy si di ziyaara ne benn mag bu ñëw di ziyaara moom itam nee na di ma xool ba mu yàgg mu ni ma foo dëkk ne ma ni ko Sénégal laa dëkk mu ni ma lu doon sa yéene ne ma ni ko dëkkaaleeg boroom rawdu bi ne mag ma ni ko aayul waaye yow comme xam nga ko ba mu jaral la lool dellul fa nga jóge nga wax leen mooy kan ba at mu jot am ñu fa jóge pour ñëw ziyaara si ko ne ma xam ni yonent bee wax ak man waaw boroom rawdu bi ci boppam nee na moo wax ak man mu jóg looloo ko delloosi waaye na mu ko bëgge woon bu ko amee woon fa lay toog daan na tooñ njabootam ñoom sëñ Babacar ñoom Cheikh El Hadj Mansour li leen wax ne ah yéen ñëpp Madina ngeen naroon gane àdduna waaw waaye ndax engagement boobu mu engagé ci yonent bi mais lu tax mu def ko waaw euh, sëñ Babacar wax na ko léegi gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ba àndu ceeg sago waaye boroomam sopp ko moom it ba àndu ceeg sago gis nga sëñ Babacar wax na léegi ci al isra subhaana alladi asra bi abdihi leylan min al masjidi al xarami ila al masjidi al aqsa alladi barak na xawla li nuriyahu min la xam nga yonte bi lu ko fa yóbboon visiter exposition <coughs> yàlla def exposition bu mësul visiter loo benn yonent mësu ko visiter loo benn malaayika yonent bi rek la ko fa tegal pour mu ñëw xool exposition xam nga lu taxoon bu bëgg mu visiter ko xam nga fii bu fi yemoon te demul ci kaw moom yonent bi yàlla du ko mën a jox lu dul tiitaru euh, citoyen universel fii bu fi yemoon bi mu ko baaxee ba mu dem nañ visiter univers yi ci des yépp ci lu koy dooru jox citoyen inter universel moom rekk la ko defal ñuy werante gis nga ba mu visité ba noppi seen protocole d'accord pour li mu ko may ci xeetam moom boroomam fa may yonent bi ngëneel yi mu may yi mu may xeetam yépp daf ko may ba yonent bi rusati koo ñaan moo tax mag ñi di wax ni bu ñu siiwaloon yemu ko may ci xeetam kon dana jur teyal jàmm yàlla ci xeetam moom la sëñ Babacar Si daan wax ni gàcce jullit mi ngi yem ci mu dee dem safara mu ni ndax yàlla ma yonent bi yëpp boo ci mënul profiter pour dem aljanna nee na vraiment sa sa kàccoor ëpp na la doole yàlla dafa may yonent bi pour xeetam bu mu rusati ah. euh, werante bari ndax gis na ko gisu ko dafa dégg baatam ak déggul baatam moom yonent bi ndax gis na yàlla Cheikh El Hadj ne gisu tàggoo ba kañ la la yonent bi yëgul mu ni njaboot bu kilifaam di gunge ba won ko gannaaw na muy sàcce pour xool xoolaat kilifa ga bu ko wanee gannaaw nee mooy ñaareelu xool bi yonent bi xool boroomam Cheikh El Hadj moo ko wax waaw euh, lu war a mën a nekk la waaw lu war a mën a nekk la ci digganteem ak yonentam bu tedd bi tabaarakallaahu ak cër bi mu ko may waaye loolu yëpp may wax ni jëlale naa ñu jox yonent bi cër mais doomu aadama yàlla bi mu koy wàcce ci àdduna mais wàccewu ko noonu rekk mu wéet yàlla dafa dindi ci jikkoy boppam accompagner ko ko euh, gis nga kersa kersa ak sutura ak yërmande ak muñ amul bu ci dëkk ci àdduna kersa kër yàlla la dëkk yërmande kër yàlla la dëkk sutura kër yàlla la dëkk muñ kër yàlla la dëkk yàllaa ko dindi ci jikkoom sarax nu ko pour ñi di ko rafetale suñu dund moom la tubaab yi tudde les vertus mais bu ci dem ba yëg ni nit ñi soxlaatuñu la xam nga kersa jeex na kenn soxlaatu ko kenn amatu ko waaw kersa mais buy tàggoo pour dellu fa mu jóge woon duñu tàggu ñun boroomam lay tàggu moom kersa ni ko kenn soxlaatuma mu ne ko ñibbisi kersa dellu kër boroomam bu ñu demee tuuti sutura yëg ne kenn soxlaatu ko mu ni boroomam kenn soxlaatu mu ni ko ñibbisi mu dellu yërmande dem ba yëg ni kenn soxlaatu ko mu ni boroomam kenn soxlaatu mu ni ko dellusi si euh, muñ yàkkamti tax na kenn talatu la muñ yàkkamti rek gis nga bu ñu demee ba vertu yi yàlla boole woon ak doomu aadama ñu wàcc ci àdduna bu demee ba vertu yëpp yéeg ci ko xam nga lu fiy des doomu aadama nekkatu fi des monstres à visage humain ñoo fiy des ku jëkku sa moroom fàdd ku jekku sa moroom torpiller ko ku jekku sa moroom sosal ko ku jekku sa moroom jaar ci suuf pour euh, trahir ko mais yàlla ni bu leen defe ni yëguma ko bés laa koy xaare bu keroogee lu way defoon mu neex ñu ni ko ban bés nga koy xaare mu ni fa ida bariqa albasar wa xasafa alqamar wa jumia alchamsu walqamar yaqulu alinsanu yowma idin wuy sama ndey fu ma jëm ah yàlla ni eh, foo jëm bunt bi benn la te ci laa taxaw ku jaar ma régler sa cas moom yàlla moo ko wax mu ni pour won leen ni kafuma kaawu yonent bi lay njëkk a régler ma ni bu xamoon ni bu ko régler épinglé ko du ko régler waaye xam na ni yonent bi zéro faute mu ni ci moom lay njëkke teg ci yonent yi door leen ciy teg Euh, mu wax ni nit ñi mu ne dañu defe ni yowmal qiyam damay taxaw di leen déglu pour ñuy layyi mu ne bu nu layyee rëcc mu ni doomu aadama ak làmmiñam mu ne bu layyee rëcc ñu ni ko nooy def moom yàlla de mu ne damay bàyyi cër bu ne wax ma la mu defoon Cheikh Tidiane Mbaye ni ma ëpp naa def de mu ni ma lu ngeen mën jàpp leen ci ndax daal mu ni ma loolu moom musiba la ma ni ko ah parce que kenn du ko tardeel waaw kenn du ko tardeel moo tax rekk mu ni ku ne damay déglu lu sa cër defoon mu wax ma ko dana xaw a waaw dana xaw doy waar waaye ndeysaan boo waxee yooyu yooyu mu lima lima lima lim waaw xëbal ñépp moom yàlla tiital ñépp Cheikh Haj Malick ni bu fa yonent bi nekkee rek mu baax waaw parce que dana régler lépp wallahi mu ni bu fa nekkee rek mu baax waaw dana régler yépp dana rafetal yépp tabarakallah yaakaar jooju moom la amoon ci ci ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, te wóor na ko ni yonent bi dégg na ko wallahi ah tax na moom daanaka lu tas yaakaar nekku fi ah, lu dolli yaakaar moo fi nekk ah sëñ Cheikh Tidiane Sy daf ma wax ni yokk leen ma ñaan ma dund ba ca kanam mu ni waaye ñaanal leen ma bés bu may jàkkaarloog Cheikh Al Hadj ma wax ko ni ko bàyyiwuma conflit sama gannaaw waaw ci sa ci sa kër man loolu rek laa bëgg ngeen ñaanal ma ko waaw mu ne ndax li nu yàlla xéewale daaw ak ren mu nu doy na sant ko waaw mu nu doy na sant ko ñu sant ko te koy ñaan nag mu dolli ko ba ca kanama kanama kanama kanam waaw eh, <laughs> dama yow sëñ Babacar ma ne ko ñun ñëpp màggat nañu gis nga bi ma toogee gi léegi changé naa position trois fois ah bu njëkk bu njëkk de ah sëñ Babacar si mosaan gis nga toog tuuti soppi sa toogeen mu ne ah yow dey du noonu moom sëñ Babacar mu ni man kat doom bu ma toogee gerte suma kurus ba fajar duma ma ñomee soppi toogee ndax damay ragal mu nekk ñàkk teggeen ci kanamu borom bi waaw ah, moom sëñ Babacar si mun nu mu toogee rek ca gannaaw gee moom lay continuer ba fajar waaw sëñ Cheikh Tidiane Sy nii bu ku ko ci roy rek gaañu waaw mu ni kooku cëru boppam la nañ ko bàyyee moom waaw eh, ku nekk ak sa cër Cheikh Hadj Malick daan na def naafila bu benn mag royul ci moom waaw te du passé ñaari rakka moom Maodo ñaari rakka rek eh, rakaa bu njëkk bi mu jàng ci xaaju kaw bi rakaa ñaareel bi mu jàng ci xaaju suuf fajar jot mu yeesal dem jàkka ji du passé ñaari rakaa waaye sëñ Babacar Si ni bu ko ci kenn roy kooku bosam la waaw ah, dafa am yu mu daan daw ah, parce li mu gëm mooy yi dagan boo ko toppee mu tayal lool waaw oh, xam nga damay tooñ xale yi ci kër ga man leen yonent bi dañ ko laaj ni ko lu la gënal ci ñam ñam bu nuy lekk mu tudd tàndarma tudd lem tudd soow ma ni leen tuddul supp kànja tuddul ceebu jën ñett yi rek la tudd doy na bu fekkee pour dund rek la doy na waaw eh, <laughs> waxee nit ñi bu ñu feebaree ku ñëw ni ma damaa feebar man la demal defi sport boo boo waxee man la gis nga où c'est sport où c'est l'ordonnance Il ne peut y de position intermédiaire. Ou c'est le sport, ou c'est ordonnance. Maître, je m'incline. C'est mon maître karateka. ngi nii moom ay formé dama bañoon sukk ci kanamam bi may romb parce que dañuy defe ni kon dama feebar waaye sukk ci kanamam moo waroon waaye daal moo ma amee depuis dix ans tabaarakallaahu yooyu yu am solo la mais li li gënoon yéeme mooy Cheikh El Hadj radiallahu taala ci ci njàng ci njàng parce que li wax ni comme yonent bi dañ ko ni iqra nee na jullit bu ne danga waroon gàddu sa àlluwa pour jàng pour jàng may wax ni yonent bi al day na ko argument al day na ko argument fatxu makkata day na ko argument yi ci des yépp daf koy tardeel tax na tabaarakallaahu ñuy ñaan ki sarax guddi gi di Cheikh El yàlla yokk leeru bàmmeelam ci barke yonent bi yàlla na ko yàlla defal euh, ki nga xam ni moom moom guddi giisam yàlla taas na ci barkeem euh, njabootam xam nañu nu mu toll waaw xam nañu nu Cheikh El Hadj Malick eh, dinaa leen ci nettali rekk benn jëfandiku bu yéeme xam nga dafa am serif bu fi ñëw jógee Fass moo fi njëkk a ñëw ci sëtu cheikh yi dans les années mu di shérif Tayib moo fi njëkk a ñëw ci setu cheikh yi bi mu ñëwee sëñ kër recevoir ko ca Tiwaawan ba noppi boole ko ak sam Pape El Hadj Mansour pour mu ànd ak moom def tournée Cherif Tayyib ànd ak sam Pape El Hadj Mansour ñuy def tournée waaye nit ñi am ñuy wër di wax ñenn ci taalibe di leen wax ni seen sëriñu sëriñ ñëw na pour di wone ni shérif bi jóge fas mooy sëriñu sëriñ Babacar mais bi ko sëñ Babacar déggee sëñ Babacar téléphoné lu sama papa El Hadj Mansour wax ko ni ko na dog tournée bi te ànd ak Chérif bi ñëw Cheikh El Hadj Mansour dog bi ñëw sëñ Babacar ni na njabootu Cheikh El Hadj Malick yépp dem xaar ma ca zawiya bi na muqaddam yi dem xaar ma fa na Chérif bi dem xaar ma fa ak ñi mu àndal na xaaj Saïd Nduuru Taay ñëw xaar ma fa ñépp dem ba ñu demee sëñ Babacar si fekk leen fi ñépp a ngi toog mu ni shérif bi fa mel ni dafa am ñuy wër nit ñi di leen wax ni seen sëriñu sëriñ ñëw na mu ni ko mënoon naa wax ak yow ci néeg waaye defuma ko damay wax ak yow ci jàkka ji ñépp xam ni wax naa ak yow parce que bu ma nëbboo rek ñu ni waxuma ak yow mu ni ko dama bëgg nga xam ni yow yow mii cheikh di sa maam doo sama sëriñ boroom rawdu bi mooy sama sëriñ yow nag sama gan nga ni ko maa ngi lay laaj ci kanamu nit ñi fi toog ndax bu ma la mere woon sa maam dina la fat Cheikh mu ne ko duma fat mukk shérif bi nag nangu waxtaan wa pour wax nit ñi kan mooy sëñ Babacar Sy njabootu Cheikh Hadj Malick yépp a ngi toog keroog Cheikh Al Hadj ba nu jógee daf ko wax ni ku mësuloo deñ di wone ni Cheikh El Hadj Malick sa kilifa ni ko ndamu kër gi yépp la waaw mu ni shérif bi doo sama sëriñ sama gan nga Maodo mooy sama sëriñ waaw waaye loolu moo nekk ci ñoom ñëpp moo tax kenn kenn feesul seen bët ku dul moom tabaarakallaahu ñu ñu nàmpal nu ci waaw nàmpal nu ci la mu waxoon Cheikh Al Hadj Aziz ma ne ko ci yéen lañu ñu xame Maodo waaw ah, yéen ñu ko jàngal tabaarakallaahu ah message bu sëñ Cheikh Tidiane si la woon ñu di ko teg ci loxo sëriñ Babacar si mii eh, tabaarakallaahu ñu nga woon këram depuis vingt heures trente vingt et toog rekk atmosphère boo xam ni yàlla ci dugal loxoom waaw ñépp bëgg ma ni ko bu ñu demee trente minutes ma ni ko ñu def ko rekk bàyyi xaaji tafsir mu gàmmu waaw ma ni ko ndax noonu lañ ko daan defee waaye eh, ma ni eh, du ngeen du wutal eh, déwén ñaari chaise non parce que toogaayu suuf bi sama nijaay bi le mi ngay si ah, ah, man ni dara laa ci mënul toogaayu suuf bi gis nga fii la fii la photo yi sëñ Babacar si daan tege sama Papa El Hadj Mansour toog ne Alaaji Abdou na le di ko woyal di woyal sëñ Babacar man maa ngi am juróomi at juróom benni at ci gannaaw manto sëñ Babacar ak fauteuil bi ci lañu daan nëbbu di naan kafe maag sëñ Mansour ak sëñ Cheikh waaw nekk xale yu ma nekk xale bu tuuti cinq ans waaw moom la bërki démb rek laa ko wax ma ni euh, gàmmu gi nu njëkk a monté au parleur maa ngi koy fàttaliku waaw jigéen ñi di ko woy rajo tubaab lamp machine ca gàmmu ga ña rooti woon ña rooti woon mboolem seen ndab ya fees na ñu di ko woy man ma nekk cinq nekk fii ci gannaaw sëñ Babacar ma ak sëñ Mansour sëriñ Cheikh ak sëñ Saliou Sarr indi termus bu kafe fii lañ ko daan naane waaw pour won leen ni sëñ Babacar bi mu fonke woon Cheikh Al Hadj mais daan na nekk ci kurusam moom sëñ Babacar laa wax de ñu ni bu ko kenn dérange man dinaa nax ñépp ba agsi ci buntam fekk mi ngi ko tëj bu ma fëggee tog tog tog tog papa ubbilal sa papa mu jóg taxaw la mu doon def yëpp mu bàyyi ko billaahi waaw bu ko soxna si yégee daf may kaata sa papa dafa soxla boppam diggante ak boroomam nga di ko fëgg xam nga boo ko ne ubbilal sa papa mu ubbil la walla ma fekk ko kër soxna Mareem Kunta naaj bu tàng ma ñëw ci saal bi mag ñépp a ngi fi ma fo ci saal bi fo ba mu yàgg ma téye ci mbubbam moom seen Babacar ma ne ko kaay gunge sa pap mu jóg naaj bu tàng mag ñépp topp ci gannaaw billaahi mais li gën yéeme bu ñu agsee ba ci buntu kër soxna astu du dugg parce que aayewu fa ah, mag ñi ñoo koy ñaanal di ma wax baal ko rek bu ëllëgee mu ñëw boo lëgee nangam nangam ba mu yàgg ma ni ko waaw waaw demal waaw ah, bàyyi ko mag ñi gunge ko mu dem waaw ma di leen nettali man leen dafa am at moo xam ni parce que bi may am cinq ans laa daan ñëw fii di wéye ànd ak moom am benn at ñu fàtte ma kër ga waaw boobu armée française ñoo fi nekk cortège bi indi woon sëñ kër bi mu ñëwee ba ci buntu jumaa ji ci lay door a rendre compte ni dañ ma bàyyi kër ga moom sëñ Babacar mu ne du wàcc oto bi mu nekk te ñëwuma benn colonel laaj lan la ñu expliqué ko wax ko ne ko il a laissé son son petit lu mat ñaari colonel ak yeneen officier ñu daw wuti kër soxna Marème Kunta moom xam nga daal man dama yeewu rek gis benn tubaab fab ma te colonel la mais mais euh, mi ngi may wax ii gamin réveille le calife a besoin de toi réveille-toi di def ni sama lex mais bi ma ñëwee lay door a wàcc oto bi mu dugg keroog sëñ Cheikh a ngi mën naan cëy waajale yow daal sa góor gi di nga ko sàmmloo ji ay xorondom waaye loo xas ba tudd Cheikh El Hadj mu cautionné ko wallahi waaw rekk noonu noonu noonu waaw tabaarakallaahu eh, yàlla nu yàlla tas ci barkeem te yàlla fayal na ko ci biir ak ci biti tabaarakallaahu ñun mënuñu ko fay moom Seex Alxaaj Maalik mënuñu ko mukk waaw mais yàlla mi nga xam ne nag am na pay te payam du jeex yàlla nu ko yàlla fayal tabaarakallaahu ñuy bëgg waaye itam di bëgg ci sëñ Alioune Mbakke Gaynde Fatma sëñ Alioune Mbakke Gaynde Fatma dafa ñëw ci yëfi boppam waaw gis nga moom mii tournée bi maamam mujj a def sëñ Modou Moustapha Mbacké ba mu ñëwee ba Tiwaawan gisee na ak sëñ Babacar si mi ngi ànd ak sëñ Cheikh Mbacké ngay defar mais lu yéeme moom sëñ Modou Moustapha mu wax sëñ Cheikh Mbacké ni ko boo ma gisatul kii mooy sa baay joxoñ ko sëñ Babacar ba mu delloo la wàcc liggéey moom sëñ Modou Moustapha premier tournée sëñ Cheikh Mbacké bi mu ñëwee ba agsi fii trois trois mille francs la génne jox ko sëñ Babacar ne ko maa ko dëggale li sama baay waxoon mu nekk sama gros baay boobu trois mille francs ak trois millions ñoo yem waaw moom mii nag di sëñ Alioune waa kër sëñ Cheikh Mbacké yëpp dañ may wax ni tabaarakallaahu moom lañu ñu séddee sëñ Cheikh waaw lu xew ca kër ga mooy ñëw taxaw <clears throat> bu fa dara xewulit foog mu jaar fa dem ba ca wàññi wa tooñ yaayam jafa nekk soxnaay da dem kafa xale yi génn dem doxi soxlaam te du toog semaine bu mu ma téléphoné wul ñu ngi nekk en contact tout le temps tabarakallahu mu ñëw ci yëfi maamam Cheikh Al Hadj ah moom moo ko moom ndax diggante Cheikh El Hadj ak sëñ Touba kenn xaju ci ah. <coughs> kenn xaju ci ku yebu rekk def leen tabaarakallaahu looy barkeeloo ci biir ak ci biti yal na yàlla wëral ko yàlla sàmm ko moo ku mu ko bokkal waaye ñu sant ñëpp ñaanal ñëpp <coughs> Eh, tabaarakallaahu yàlla na nu yàlla boole taxaw yàlla may nu wér wéru biir ak wéru biti parce que yomb na ko te moom doyewu ko dara waaw mu sarax nu rek jox nu ko waaw gudd fan nag ñu ñaan ko ko waaw yàlla defal nu ko ci biir defal nu ko ci biti waaw ah damay waxtaan ak seen cheikh bés mu ni ma xam nga lu ma jaaxal ma ni ko déedéet mu ni ma xam nga xaj yi ci koñ bi xaj yi les chiens ma ne ko mu ni ma xaj yépp xàmmee nañu xale yi soxal ma buñ ci seen rekk waaw waaw ni ko man tam de ma ne ko am na lu ma la bëgg a nettali moom sëñ Cheikh mu ne ma lan la ma ne ko dama ànd ak sëriñ bay si ñu dem Touba fanaan fa ma ne ko sëñ Mbay si ni ma ba Malick ma ne ko si mu ni ma am na liir yu soxor moom sëñ Mbay liir liir yu soxor ma ne ko ah sëriñ liir nu muy soxale mu ne ma xam nga dangay fab fab liir mu jékki-jékki gajje la walla mu màtt la ba pare di xool ndax daa wane lu wane ni metti na sa kanam mu ni ma boo gañee mu ree mu ni ma xam nga kook li mu def moo ko tey ma ni mu ne moo tax lu ma liir def ma fayu mais wax na dëgg wax na dëgg ah tabaarakallaahu daaw bi nu fiy jóge dañu waxoon ñépp ree te itam ñu wax ñépp ree yàlla na sax ilal abad nag sëñ Cheikh Tidiane si daal nee na ku ko ci ku koy ñaanal ñaanal ko lii sax wa rabbil kaabati moo ko wax nee na ku koy ñaanal ñaanal ko lii sax parce que mission la waaw te mag ñépp ko ci jox carte blanche waaw nee daal nañ ko ci ñaanal mooy li ko yitte kon nag fa mu ko bëgg a yóbbu yàlla ko fa yóbbu ci barke mag ñi tabaarakallaahu ñépp ci bëgg billaahi ñépp ñépp ñépp ci bëgg wax naa leen fii daaw ma ne leen Cheikh El Hadj yàlla yàlla yokk leen wax naa leen ni moo njëkk a tàggee sëñ Babacar si sëñ Cheikh wallaahi moom El Hadj Mansour kër gi dañu am conflit ñeenti at kenn gisewul ak sa borom sama Pape El Hadj toog rek yónnee ni wax leen Cheikh mu ñëw wuy si ñu ñëw wax ko seen Cheikh mu yéeg ci kaw pour tàggu soxna si soxnaas naka la ñëw rek soxnaas tu ko xamoon nit la soxnaas tu ko ne lu xew mu ne ko góor gi laa soxla woon waaw mu ne ko sama Pape El Hadj daf ma woolu ma bëggoon ko tàggu pour dem wuy jikko su la su ni ko sa papa woo loola ngay tàggu sa papa lu tax demal wuy ji ko ni ko bu leen wolofe ba mu ëpp ni ko gis ngeen yéen fii yilifu leen ko Sëriñ Mbay Mansour ak Maodo ko yëlif yéen foofu ngeen yëlif waaw bu la sa papa wooyee demal wuy ji ko sëñ Cheikh dem wuy ji ko ca gannaaw timis te maa ko fekk mu teg ni der bu cuxur boobu mu daan jullee nee na ma ñëw nuyu ko toog rekk mu ni ma ah mu ni ma def ma njëkk ni cheikh ndax mës nga dégg ni jëw naa la cheikh alxaaji Mansour ak dignitéem ak ngorom du jëw ah, mukk bi mu laajee sëñ Cheikh ni ko ndax mës nga dégg ne jëw naa la sëñ Cheikh daf ko ni kenn mësuma ko wax mu ne ko ruus naa ko ndax ñett mu ne ko ruus naa ko ndax alaaji Abdou Kan mi jur seen yaay ku mu mës di nuyu ci ñun du la nuyoo dàll daf koy summi ngir fonk Maodo te ñun ñu jàppe ko wéy jur ni ko loolu dana tax ma ruus laa jëw mu ne ko bi ko ñaareel mooy bi ma gisatul sa maam ciru xaqiiqa bu ma ko joxoon sa papa laa ko teg ci loxo mu ne ko loolu dana tax duma la jiw mu ne ko bi ko ñetteel mu ne ko yow Cheikh danga am jikko boo xam ni yàlla la ko jox te muy jikko bu ma neex mooy sa fayda bu ko xamaloon ni bu ma gisoon majoos bu gëmul yàlla yëpp am fayda foog ma sopp ko mu ne ko kon yow boo amee fayda ma jur la du ko gëme mu ne ko ñett yi moo tax duma duma la jëw mu ne ko li ma bëgg a waxtaan ak yow tey nag mooy sa papa dafay dem te ma nit duma fi toog ah, wallaahi ko dafay dem te man duma fi toog mukk bëggoon rekk yéen xale yi ngeen seet nu ngeen juboo ni ko parce que mag sa papa suñu conflit du nu wàññi dara ndax yàlla ñu ko nattoo ci suñu mujj dund mu ni ko mais yéen ñi ndaw bu ngeen ko bëggee yenu jëme ko fu kenn ni ko kon coono rey leen ni ko loolu rekk la bëggoon a waxtaan ak yow wallaahi mais moo njëkk a tàggee sëñ Babacar tàggee boppam ku xam ni meloon ak sëñ Babacar itam loolu du la jaax wallaahi ah, tabaarakallaahu ñoom kenn xamul ban xeetu nit lañu waaw seen may tabaarakallaahu seen leer tabaarakallaahu ah rekk yooyu yépp gis nga sëñ Cheikh damay wax ni dafa tudde soxna Fat si bu sëñ Babacar si doom moom sëñ Cheikh Tidiane si mu ni rus naa tudde soxna Faat si doom te tuddewuma doom soxna Faat si Mansour moo tax mu am kinne bu soxna Safi dem ak kinne bu soxna bu soxna Safi dem soxna Faat si bu sëñ lañ ko tudde kinne bu soxna Ayda soxna Faat si Mansour lañu ko tudde waaw moo tax lu fi gaar rekk lu yàlla dogal la waaye du lu nu yéene du lu nu yéene ah, dañ ko donn ci kër yonent bi jamono bu ne dama koy nettali damay wax ni bi mu tëddee feebar moom yonent bi mais la dégg ñuy xuloo ci jàkkam mu laaj Aïcha lu xew mu ne ko yow la wutal ku la donn mu ne ko mais sama bakkan rotagul ca la jógee nag wallaay rekk ak tempérament boo xam ne wuti jàkka nañu ko lëng nañu ko sottil juróom ñaari ndoxi teen yu bokkul ci boppam mag ñi ba léegi dañ ko def gàllaay waaw feebar bu leen dal te xamuñu lu mu doon ñu wuti juróom ñaari ndoxu teen yu bokkul pour sangoo ko doo leen boole nag boo sangoo jëlal beneen sangoo jël beneen sangoo ba juróom ñaari ndoxi teen yi mat mais doo leen boole ci benn bool yonent bi nañ ko ko sotti pour lu wàccee lu wàccee eh, température yaramam ku sotti ko ko takkal ko boppam mu dem ca jàkka ja pour wax ak ñoom bi mu dugg see sax ñu bari dañ foogoon dafa si pour reprendre di leen jiiteeg yooyu mais loolu indiwu ko mu wax leen lu mel ni xeme bu leen mës bëggee blessé nag ñoom jullit yi daf leen di wax ni ba léegi yëg naa ni jaahiliya des na ci yéen bu ko defee ñu rus ñoom ñëpp waaw rus ñoom ñëpp mu dellu nag waaw muru waaw moom tànn na candidat de muru ababacrin fal yusalli bi nas loolu moo kër yonente bi la njëkke Seyid Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala an mais ñaari doom yu góor yi mu amoon moo leen daan tëj bu ñuy tëdd parce que nee na bëgguma kenn gannaawuma dem wax ak ñoom te bu keneen waxee ak ñoom tàqale leen tax mu leen daan tëj dem tëdde bu fajaree mu ñëw tijji bunt kenn ku ne doxi sa na nag tabaarakallah li nuy ñaan mooy yàlla saxal ci zaahir ak ci baatin yàlla bàyyi fi sunu nijaay ji ba ca kanam a kanam a xale yi ñëw nañu seet si ko soxnaam yi waaw wax ne rek xanaa ma ne ko ah, xanaa buñ jógee ñëw yendool si la waaw tabaarakallaahu ñëw yendool si la li ma toog ci saalam yépp sama xel gis nga bunt boobu nekk sama côté gauche ak bunt bi jàkkaarloog moom ak saal bi la ci histoire xajul ci téere billaahi maa ko xam maa ko wallaahi maa xam si Cheikh El Hadj foofu xam naa la fa nekk yàlla xam na ko waaw ah, ndeysaan bu koree bu koree masaan jege mu ni ana ngóon ajo woo mu ñëw mu ne ko àndal ak son baay te wutal ko moom kañ euh, ma nekk nag le prince de la maison <coughs> alaaji Abdou bu jógee indi paquet alaaji Abib bu ñëwee alaaji Abib ndeysaan lenn rek laa ko daan ñaan poire dama bëggoon poire fruit poire du ñëw caawoon mukk te indi lu ma kees ndeysaan mais ñoom ñëpp ci benn baat lañu tase sama baay waaw yóbbulal sama baay yóbbulal sama sama baay tabaarakallaahu kooku ajjana la woon waaw ajjana la woon Haji Mansour war a këram pour nuy si sëñ ak ña mu àndal tuuti El Hadj Abdou jóge fa pour nuy tuuti alaj abib nuy si sëñ Babacar ak ñamu ànd kër gi mel ni ah, bu ñu xasee nuyu sëñ Babacar ba noppi ndeysaan sëñ Babacar gêné parce que ñi nga jëm ca ñoom soxna umu waaw dégg naa ci Serigne Cheikh mu wax ni am na bés sa Pape El Hadj ñëw di nuy si sëñ Babacar nee mi ngi sol baxa bu rafet xam nga ñoom eh, tabaarakallaahu dafa am leen yàlla mayoon ci cool mais nee na bi sam Pape ñëwee sëñ Cheikh a ko doon nettali nee na soxna astu moo ko dogale poñe ko ni ko tey duma laaj sëñ Babacar dépense yow laa koy laaj nee dugal loxoom ci poosu Cheikh El Hadj Mansour fekk ci fifty <laughs> et sama Pape Hadj Mansour ni ko soxna si mbubb rafet jiba dara waaw rafet jiba dara wallaay mais soxna si dugg wax ko sëñ Babacar ni ko sa kër yi dañoo bànk sëñ Babacar ni ko jaaduwul ndax fi seen baay jaar ak nit ñi waruñu leen seetaan ñuy banque euh, dama ko wax <coughs> ci mbubb gis nga sunu maam bu baax bi maam dut sekk waaw sëñ Babacar si daf daan wax sëñ Cheikh ne ko sa maam dut sekk perkaal sax bu ko mësaan sol génn ndar seetaan ko ndax personnalité wallahi ah lu ko perkal bu ko masaan sol bu génnee ndar seetaan sëñ Babacar def daan tudd ñooñu mbokkam yooyu di tudd oncle am di wax sama nijaay Samba Koor walaay ndeysaan di ko faral di tudd di ko répété mais e gis nga li wax ci maam Dut Seck dama dem fële ci crédit foncier am ñu ma gis ma dugg ci benn magasin nekk ñi ngi may xaar ci bunt bi pour ziyaara ak ñaanlu xam nga sëñ Cheikh daf may wax toujours ni ma bu nu sàccoon nit ñee ñuy njëkk a feeñal parce que ñoo nuy dab di ziyaara wallaay crédit foncier ma génn ci magasin bi ma nekkoon euh, nit ñi di ma nuyu di ma ziyaara noonu ci bëccëg ma gis ndaw su jógee nële waaw mu nga sañse <coughs> wallaay mu nga sañse mu nga makki yow euh, mu ngay temp waaw ah, naka laa ko seen mu jëm si ci man ma ne sama xel kii de doomu ndar la kii di traversé tali bi yëgul ni oto yaa ngi koy klaxon waaye mu ñëw ba agsi ci man moom ndaw si posé ma question bu ma jóge ko ndax daf ma ni xam naa gis na nit ñi di ma nuyu mu ni ma yow yaay kan ma ni eh, nga mun ma yow yaay kan ah ma delloo ko question bi ma ne ko soxna si yow yaay kan mu ne ma man ma ne ko aw ah, mu ne ma waa kër maam Doodu laa maam Doodu Seck ma gis Pierre te bi ma ne ko ah mu ne ma nit kër maam Doodu laa de te muy dëgg mu ne ma xanaa déet ma ne ko ah kër maam Doodu laa de mun man kat dama gis ñee daw mel ni ku seen xaw ma lan daw rek di ñëw noonu di nuyoo ma ne kii naa ko laaj mooy kan rek ka feex waaw mbokk ma sama cousine ba mu ne ma man xam nga Dakar lay liggéeyee ma jóge fa rek ñëw ndar am congé mu ne ma di doxantu ci mbedd nar yi kër gu ma romb ñu tofal ma ndaw sama tante ne ba jàmm ngay waaxu keneen ni sama bàjjen ne ba jàmm ngay waaxu mu ni ma ndeke man tafar tafari ndakaar wi yàq na ma ma ne ko gis nga tafar tafari ndakaar ma ne ko ku ko deful dara du sotti waaw ndeysaan ma ne ko sëñ Cheikh Tidiane si neena na yi sax passé nañu vitesse supérieure nee na benn kàkkatar tareetul xulwa tabaarakallaahu waaye yooyu rek yàlla yàlla dolli jàpp ah dañ ni woon deux heures du matin lañ fiy jóge waaye ñu jox sëriñ bi mu def ñaan ñaanal lu ñu joxante waat rendez-vous ci kàttanu borom bi eh, l'année prochaine incha allahu ñu eh, baalu àq ñëpp ziyaar ñëpp tabaarakallaahu ñaan rek yàlla dolli jàmm dolli xéewal dolli barke dolli sutura dolli wér waaw tabaarakallahu yàlla nu ko yàlla defal ci biir defal nu ko ci biti allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallam gannaaw bu ñu santee yàlla ba noppi nuyu nag doomu soxna yi fi nekk yépp nee sànq dafa tëb rekk dal di dem jaarul ci ñoom te ñoom it ñu bokk ci cër bi waaye nag dara rëccul tabaarakallaahu ñuy nuyu sëñ Aliyu Mbàkke ni ko sëriñ bi waxe rek kër maamam la ñëw ñëwul këru jaambur nuyu góor gi alxaaj tafsir saaxo nuyu alxaaji mansour jóob nuyu sunu baay cheikh seydi mohamadul moustapha si nuyu kilifa yi fi toog yépp sëriñ bi Sidi Bakar ne bare nañu fi toog te fa ñu jóge sore na yàlla leen indi yàlla nañu yàlla wuutu ci ñoom fay leen ne nii nga ko waxe rek noonu rek la war a tëdde ku am loo mënula jox sa bopp danga koy sante kan ko jële ci moom danga koy sante kan ko jële ca moom nit nit mën na fexe lu ne mën naa fexe lu ne ba mu des fexe dund ba déwén ba mu te fexe ba dund ba déwén fexe dund ba déwén fexe dund ba déwén kenn mënu ko yàlla rek moo koy maye suñ fi dajee daaw waxtaan. kon buñ fi dajee daaw waxtaan. tàggoo ñaan yàlla. tàggoo ñaan yàlla. tesewaat fi tey. tesewaat fi tey. li fës. li fës. mooy dund nañu ba déwén. mooy dund nañu ba déwén. waaye la yëpp yàlla nangu. waaye nag la ca toppoon lépp yàlla nangu na ko. dafa fekk ku doylu. dafa fekk nag ku dul doylu. loo ko jox mu xeeb ko. waaye dund gi rek wane na ni yàlla nangu na lépp yàlla nangu na lépp eh, waxtaan wi tabaarakallahu waxtaan wi tabaarakallahu waxoon naa ni gàmm gi sa gàmm ne waxoon na ni gàmm gi kat maam sa gàmm la gàmm nga ko itam nga ko itam nag ndax eh, Seydi Hadj Malick ndax góor gi Cheikh Seydi Hadj Malick yàlla moo ñu xamal yéen yàlla moo nu xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waaye yonent bi moo nu xamal yàlla Cheikh Seydi Hadji Malick nag radiyallahu anhu moom moo xamal yonent bi ne moom mii wax na ko sànq kenn doorewul. fa kenn doorewul. fala doore. kon luñ fi xam ci diggante bi. ci yonent bi. moom Cheikh Seydi Hadji Malick moo ñu ko xamal. nii nga ko nettalee. nii nga ko nettalee. mës naa ko dégg ci làmmiñu Alxaaji Saïd Nourou koo dégg ci làmmiñu góor ga Alxaaji Saïd Nourou Taal. radiyallahu anhu. mu wax ni mu wax ni. lii Seydi Hadj Malick bind ci yonent bi. lii Cheikh Seydi bind ci yonent bi. ak ni téere bi tuutee. ak ni téere bi tuutee. te mu doore ko ca ba muy leer. ko ca ba muy leer. àgg ak moom ba ba téere ba wala ca moom Muhammad sallallahu alayhi ñuy sotti ndox ca kaw bàmmeel ba. ak dox gannaawam yépp ak la dox gannaawam yépp xam-xam mayewu ko yàlla waxal mooy xam yu mel noonu yàlla nag yàlla nag moo wax ni moo wax ni boo ma joxee sa bopp te muy dëgg boo ma joxee sa bopp yow te muy dëgg ma jox la loolu jële fenn ma jox la loolu jële fenn kon lii firnde ji la fa tabaarakallahu ñu kontaan ci nag lool nag lii nga mujj a wax nag ci kër gi ci kër gi lu jaroon a wax la lu jaroon a wax la ndax nit ndax nit lu mu bokk lu mu ca xew war na koo xam boo xamul li xew ci sa bopp waaw yow boo xamul li xew ci sa bopp doo xam sa bopp. te nit bu xamul boppam nag bu xamul boppam nag. dundam amatul njariñ boo xamee foo jógee doo xam foo jëm moom mii Seydou Bakar ne te dégg na ñu ni góor gi aman mbay Maodo ñu ni góor gi aman mbay Maodo nettali na nettali na nee na nee na dafay sottil Cheikh Seydi Hadji Malick muy jàpp ba mu yàgg ba mu yàgg Cheikh Seydi Hadj Malick téye loxoom jàppatul ni pat ba mu yàgg mu ni matu ko sax dal di continuer jàppam ba mu jàppee moom góor ga ba noppi ba dem nag defi naa filaam góor gi man bay ni ko ah man de góor gi man jaaxle naa sa tekk gi nga ni tekk ba mu yàgg ba mu yàgg nga ni sa matatu ko sax. nga ni matatu ko sax. naa bàyyi noonu naa bàyyi noonu. mu ni ko waaw mu ni ko waaw. Amadou Amadou. lu yàlla yi séddale. lu yàlla yi séddale. sédd ci yonent bi sédd ci yonent bi. sédd ci Cheikh na Ahmed Tidiane. sédd ci Cheikh na Ahmed Tidiane. sédd ci Cheikh Alhaji Omar Fouti. sédd ci Cheikh Alhaji Omar Fouti. bu ma ca séddee bu ma ca séddee ma jël. te. te. ku yàlla tax nga jóg képp koo xam ne yàlla moo tax yow nga jóg faw nga am ndox faw nag nga am ndox alquran a ko wax yàlla nee na kenn du agsi yàlla nee daal kenn du agsi te jéggiwuloo ci sa kanam te yow obstacle yi ci sa kanam alif lam mim alif lam mim أحسب الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا آمنا وهم yàlla ne du ma ko def de ku ma ni man yàlla daal man yaa ma tax a jóg rek ma roofal la obstacle soo amee fulla traversé ko agsi soo ñàkkee fulla reculer ñàkk lépp waaye jataay bii jataay bii du jataay buy tas yaakaar du buy tas yaakaar jataay bii jataay bii du jataay buy yolomal pas-pas du bii jataay bii yàlla du fekk kenn ni ko loo fii def yàlla du fekk kenn ni waaye fii loo fii def kon nii nga ko waxe gàtt na sax na sax waaye doy na waaye doy na ñu déggee ci ni ñu déggee ci nag ni lu xottiku woon lu xottiku woon naaw fu ne mu jëm fa nag fu ne mu jëm fa dajawaat dajawaat taxaloo nekkaat na benn ku muus ku muus nag maandu ci ku muusul nag ku muusul nag waxal ba yàqu fii daal wax du fi jóg waxit du ko tas de waaye nag nit mën na fee wax ba yàqu wax du jóg ci kër gii waxit du tas kër gii waaye nit daal mën na fee wax ba yàqu ndax fu yàlla defaral boppam defe ko moom yàlla na mu ko bëggee wuteeg yàlla ci xalaat ku ca wuteeg yàlla nag ci xalaat tooñ nga sa bopp alhamdulilahi rabbil alamin waxoon ko ca ziar ne waxoon na ko ca ziar général ba damay yenn saay su ma toogee ci mbooloo ne moom yenn saay bu toogee ci mbooloo am na luñ may sikke am na luñ koy sikke mën a xoole nee day xool rek. dana dem bay wàññi nit ñi. nee dana dem sax ci xool bi bay wàññi nit ñi. may dem nag ba gis nit. nee muy dem nag moom ba gis nit. ci biir nit ñi ci biir nit ñi. ma ne xam naa fekkee. ma ne xam naa fekkee. ku mu dal ku mu dal. sañ nga nettali sañ ngaa nettali. waaye kuy nettali nag. na nga maandu. nettali li nga gis. ni fa ma demoon. ni fa ma demoon. ca Tiwaawan. ña ma gis ñu toog day ña ma gis ñu toog day ay bokki kese lañu ay bokki kese lañu te jàmm rek lañ fa wax waaye ku wax nag lu dul loolu dafa am bëgg dafa am yow loo bëgg te jotuloo ca sëriñ bi mbaax nag fu ñu ko yaakaare seytaane wut fa ndaw seytaane bañul ku nag bañul ku jóg waaye nag ku àgg lay bañ am na loo xam ne lii nag nee am na nag loo xam ne lii nag yàlla dogal na ko ba noppi yàlla dogal na ko ba noppi yàlla nee na seytaane yàlla nee na seytaane jaam yi ma jox seen bopp jaam yi ma jox ñoom seen bopp te séddoowuñu ak man man dara ñooñee day teg naa leen loxo ba yow loo bare bare pexe fi nga leen di bàyyi su ko defee itam nag nii rek daal mooy yoon waxtaan ak nit ñi delloo si leen lépp ci santaane yàlla la bokk ñetti yoon a ngi nii yàlla wax ci ni wax leen wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin kon ku fi toog dégg nga loo mën a yóbbuwaale ci jikko nag ak sa diggante ak sa boroom fa dakkir in nafaati dikra sayadakkaru man yaxsha fa fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bi mu musaytir foofa nag yàlla daf la ni yow daal waxal la nga war a wax te bu ca poñante kenn ku nangu maag moom la ku gàntu maag moom la moo tax moom Sidi Bakar mu ni sànq Cheikh Seydi Hadji Malick ku maandu la ñi nangul yàlla bàyyi na leen ak yàlla ñi nangulul yàlla boole na leen ci jaamu yàlla yi waxfir lana waliman min baynina nasabun min jihati tiini ñaari mbokk yooyu rekk fi am bokk doomu aadama wala bokk pas-pas mën nga di nit weddi yàlla waaye mën nga di nit gëm yàlla boo weddee nag loo weddi weddi terewul bu ñu lim nit ñi ci nga bokk comme yow ki ngay tooñ nag xajoo na ku ne waaye waaye nañ la bàyyeek moom moo tax xale yi way sànq wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasiat min fajirin wa mutiin zaahidin baari sëñ bi bu yàlla dee séddale bu yàlla dee seddale doore ca ka deful dara waaw doore ca doore ca ko defalul dara faajir faajir kon kay zaahir waaye kon kay zaahir ak baar ak baar kon war a rafet njort kii jëriñu fi dara waaye nag dañ ko may nekku fi ñu wàccal ko fi ki defoon dara kenn du lekk te ñëwul beneen bi ci des nag mu jeexe la ko wax bi moo di taaj nga fi ñaari ndël taaj na fi taaj nga fi ñaari ndël yoo xam ni fuñ ko taaj sa loxo maam Cheikh Seydi Hadj Malick set na pour dugg ca mu di muy kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kër Cheikh na Ahmed Tijani loolu nag sa maam am na ci cër ndax liggéey ba mu ca liggéey ne xam nga yow sa maam dañ koo boole ndax nit ñi ndax nit ñi ñett rek lanu murit murit bëgg yàlla bëgg yàlla di ko wut di ko wut fas yéenee dee fas yéenee dee ak muraat ak muraat ku yàlla bëgg ku yàlla bëgg te muy biddanti te muy biddanti saful yàlla fu mu ne yàlla jëli ko yàlla jëli def li bëgg ci moom ak muraat ak muraat ak ak marit ku bëggul yàlla mooy ku bëggul yàlla yàlla bëgg ko yàlla nañ ci yàlla mu musal yii fi xew nag njariñ la fa tabaarakallaahu ñu sant yàlla nag sant borom bi wolof nee na lu jot rek yomb lu jot yomb jataay bii gëj na fii gëj na fii waaye bi mu jotee bi mu jotee yomb na fi mu ne nii te kat amul protocole amul diisoo amul rab amul firi dañ ko def rek ñaar ñi nañ dem fii ñaar fii fële amul werante ndigal la ñu jëfe li nga xam ni nag ñun moo ñu fi bàyyi moo jël ndigal li moo jël ndigal li teg ko ci suñu loxo kilifa gii teg ko ci suñu loxo kilifa gii mu la mag ña gàddu woon moom mu gàddu nag la mag ña gàddu woon di ko doxal na ko mag ña daan doxale ku fa mës a ne rek joxe nga ndigal ñu jëfe ko kon nag loole mooy dem di dem di dem ba fa mu neex yàlla insha allah loolu rek moo mën a am loolu rek moo mën a am ne moom gisu fi leneen waaye te nag nit nag na not noppal boppam nañu noppalu yàlla dafa ni laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha yàlla nee na ku ma bind lu ma la teg xam naa ni yow ma ma ko teg attan nga ko onk gu bari gi ak njàmbat li la ko waral mooy la la yàlla yenoon nga wut yow sa yenu bopp yokk ca diis nag ba mënatoo dem waa ji dafa bëgg jabar sëñ bi dem ca kër goro ba fekk goro ba amee waxande wu diis di ko bëgg a yóbbu mu ne nañ ko ko yan àttan na ko goro bi ni ko diis na de mu ni ko attan naa ko ndeysaan bëgg doom ja rek ñu wax wax mu ni foog mu yanu ko ñu jàppoo waxande wa yan ko ko mu taxaw benn bërëb ni patt nag wax ñu ne ko waaw dafa diis mu ni déedéet waaye yenn leen ma ma xef yenn leen ma rek ma xef moo xefee ba pare yenn waat nag loolu rek ñu sonal loolu rek moo ñu sonal yenn loo àttanul ne xam nga àddina ki ci gën a noppalu ki deful dara ki dara te bëggul dara lu mu am mu bett ko lu mu amit doyloo ko ki ci gën a sonn nag deful dara mooy ki deful dara te bëgg lu ne te bëgg lu ne. Mhm. tabaarakallaahu. yàlla na yàlla saxal. yàlla na yàlla saxal. jeexitu mag ñi rek fi ne. jeexitu mag ñi rek moo fi ne. jataay bii jeexitu mag ñi rek. ñu jàppoon ak Cheikh Seydi Hadji Malick ànd ak moom ci ngor ak ci bokk ci diine. ci kóllëre di jaamu yàlla di wut Cheikh Seydi Hadj Malick dégg na ni moom nee na lu ma mën a ñàkk daal yitte bokk ci te nag man Maodo am naa yitte ju toll nag du ma yoneen du ma saxaaba waaye fu saxaaba teggee ëllëg Malick fas yéene faa teg tànkam hmm? waaw maam Malick ko de nee na xulafaawu arbaa moom Cheikh Seydi Hadj Malick de nee xulafaawul arbaa ëllëg fu ñu teg seen tànk ma juróomeel leen lu ñu am cofeel ci yonent bi moo tax ñu am ko te gënuñu ma koo sopp gënuñu ma koo gëm kon nag fu ñu taxaw ëllëg ma taxaw fa kon boog Sidi Bakar ne wax baa ñuy nuyu nag bu baax kilifa yi fi toog yépp sant nag waykat yi tabaarakallaahu ñaan leen ñoom yàlla nag ndax tool bi ñoom it ñu ngi ciy bay di xoromal nag ak seen yi nga xam ne yu sew la ñu ko ciy def ci suuf sëñ bi daal Sidou Bakar ne ñu ngi lay seedeel nuyu ñëpp sant ñëpp ci turu kan Cheikh Ahmed Tijani ñu ngi sant ñëpp moom nag moo amee baatu kër Cheikh Seydi El Hadj Malick tasaaroo bi du tasaaroo moo ñu yónni pour ñu dajale ji daara ji taalibe yàgg na fi génn àndandoo groupe dugg ci àll bi lu leen fa yóbbu taxani bu nu taxanee ba takk nag nga xam ni tasaaw tasaaroo wuñu woon dañu am lu ñu doon wuti rek ñu bàyyi bàyyi tamsiir mu daldi tam continuer ñoom ñoom ñu ñaanal leen ñu ñaan yàlla nag ndax palaas bii ñu toog mag defal na fi yàlla lu mu ko nangul ay mag defal nañu fi yàlla lu leen yàlla nangul wax nga léegi maam Malick ni diggante njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick fonkante gu ñu fonkante woon. fonkante gu ñu fonkante woon. ak fonk gu ñu fonkoon diine. ak fonk gu ñu fonkoon diine. kenn ku ne di warmaal sa morom ngir baayam. kenn ku ne di warmaal sa morom ngir baayam. ba mu agsi ci yow mii. ba mu agsi ci yow mii. tubaab ba naan la ton père a besoin de toi. tubaab ba naan la ton père. a besoin de toi a besoin de toi. loolu nag loolu nga ci wax xorma jooji ma nga woon ci seeni diggante ñoom nit ñi nag di dund ci seen biir waaye xamuñu leen yar nañ yar nañ waaye dëjuñu kenn waaye dëjuñu kenn dañuy jëf rek dañuy jëf rek ak di def di wax ngay fekke ne maam Malick ne wax na fi daaw ne papaam Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour muqaddam bu ko tooñoon muqaddam bu ko tooñoon sëñ Babacar woolu muqaddam sëñ Babacar woolu muqaddam ba ni ko dama dégg ne dafa am loo joteeg El Hadj Mansour ni ko man dama am lu ma dégg ni da nga joteeg papa Hadj Mouhamadou Mansour muqaddam ba bëgg expliquer. muqaddam ba bëgg expliquer. sëñ Babacar ni ko jéggal ma ko. sëñ baaba Babacar ni ko jéggal ma ko. dama foogoon ni dama foogoon ni. nit ñee koy wax. nit ñee koy wax. waaye amul. waaye amul. waaye yow. waaye yow. fi nga jaar ak Cheikh Al Hadj Malick. fi nga jaar ak Cheikh Sidi Hadj Malick. fekk ku toll ni Al Hadj Mansour. fekk ku toll na Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mansour. ci kër gi ci kër gi. ak ci tariqa nga tooñ ko nga tooñ ko. ni ko yow daal ba ma wax dara. ba mu génnee dem. ne Pape El Hadj Mansour ñëw. sëñ Babacar ni ko ah. wallaay si si. leen rek laa leen di ñaan leen laa leen di ñaan. mooy muñ mooy muñ. ni ko gis nga muqaddam bi la tooñ. mu ko gis nga muqaddam bi la jàngal naa ko juróomi téeméeri jàngal naa ko juróomi téeméeri salaatul fatiha. pour bañ mu ndax daf la xamul. ne Seydou Bakar ne bu ko defee nag loolu nga wax ci turandoom dégg na ñu nettalil ko xaleel bu mësee jooy ci biir kër gi dafay génn moom góor ga moom sëñ Babacar ni kiy jooy kan la buñ nee ko doomu diw la doomu soxna ummoo wala doomu Serigne Cheikh la wala doomu soxna Zeynabu la mu ni na génn jooye ji ca mbedd ma wala man sëriñ baaba kër ma génn mu jooy ba noppi ma soog a dugg si ci kër gi bi xurmatin wasala man qad wasala bi tarkiha fasala man qad fasala wax ji nag Sidi Bakar ne dafa am chance ëmb lu bare nag ëmb lu bare bare bare bare waaye rek cër bi ci lañ doon jox nag Cheikh Seydi Hadji Malick wàllam ndax am na ko ci nag yàlla ko ko séddee jataay bi it di jataayu teraanga ndax jataayu teraanga paasewul toog di wax yàlla wala nitu yàlla te kat ku wax nitu yàlla wax nga yàlla ndax la tax mu tudd nitu yàlla daye ba mu am ca yàlla tax fa tabarakallahu kër sëñ Tuubaa ngi fi kër Cheikh Seydi Hadji Malick ngi fi kër Cheikh Alhaji Omar ngi fi surafaaw yaa ngi fi Chérif Turaat ma nga nee toog ma nga nële ca gannaaw fa tabaarakallaahu di nit ku baax alu bayti ñëpp a ngi fi sëriñ bi borom pas-pas yu dëgër yi yéene yu sell yi bëgg yàlla bëgg lu baax te bëgg nag ku leen ci dimbali déedéet nit ñu bonuñu de dañ leen waxul dara rek buñ leen waxoon dëgg ñu tegu ci kaw yoon waaye nag jamono la ca seytaane daan def nit ñi nit ñaa koy def seytaane léegi nee nañu seytaane bu jaaxlee ci nit ñi lay ñëw laaj si leen pexe léegi seytaane amatul pexe te pexem yépp nag ci ñaar rek la ko def alal ak daraja alal tax na ñépp ñàkk seen bopp bëgg daraja tax na ñépp añaan ne sa Pape Mansour Pape Malick mas na wax ni man kat lu ma yàlla teg mën naa ko muñ ba mu des ñaar mag muy fen ak ndaw lu bëgg daraja kon sëñ bi nga ñaanal mbooloo mi nga ñaan yàlla yàlla nañ fi dajawaat at yu bare bare bare bare at mu ne yàlla nañ ci yokk ba yëg yokk goo xam ne du yàqu ngor du yàqu diine yàlla na yàlla fay jaamu yàlla yi yàlla nañu yàlla wuutu ci boppam fayal ñu boppam santal ñu boppam itam sant gi war mënuñu ko waaye yàlla nañu yàlla wuutu ci boppam santal ñu ko ci daje bi xew-xew bi fa tabaarakallaahu ñaan yàlla itam nag ku fi ñëw war a dellu fa nga jóge woon booy dellu yàlla na la yàlla aar aar sa waruwaay aar tali muy daw aar ka koy dawal aar ña ca dugg aar ña jiitle aar ñay dabante aar ñay rombante aar ña ñuy romb machine du yàqu pono du toj bar de du yàqu yal na yàlla def sutura kenn ku ci nekkit delluwaat ca sa ñoñ ak jàmm ju ëpp ji ñëwee woon yóbbuwaale jàmm ju ëpp ji ñëwee woon fekk fa jàmm ju ëpp jàng fa bàyyi woon jàmm mooy yàlla te fu yàlla wàcc rek jàmm wàcc fa réew mi itam yàlla na fi yàlla def jàmm def fi yombal tawfiix xéewal barke déggoo bëggante sutura ak jàmm réew mi dañu wax ni yàqu na waaye yàquwul de ñi dëkke réew mi ñoo yàqu ku ci bëgg a génn nag defaral sa jikko kenn ku ne xam nga la nga bon de yow daal duggal ci sa néeg futti sa bopp génn sa yu bon teg génn sa yu baax teg tànn la nga ca war a tànn te tànn nag la yàlla gërëm nag xam nga sa bopp waaye loo xam-xam-xam sa bopp ki lay mujjee ëllëg moo la gën a xam sa bopp te mooy yàlla sëriñ bi wax na ko sànq i'mal ma shi'ta fa innaka muhaasabun bihi yowma alqiyaamati barakallah yàlla na yàlla dolli jàmm ñu ah ne Seydou li nga wax dëgg la de ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax fa tabaarakallahu li mu wax lépp dëgg la nee dafa am baat bu turandoom daan wax daanaka moom la defoon rek wéttalam moom daal loo soow soow mu ne ah jafal xalam de mu daal di jeex jafal xalam rek la yàllay dogal dogal na ko ba noppi mais lii mu mujj wax ci jikko yi ko gën a doon dëgg amul. lu ko doon gën nekk dëgg amul. xam nga li la neexul ci sa bopp. xam nga li la neexul ci sa bopp. nga ni yàlla sama jikko neexuma. nga ni yàlla sama jikko neexuma. yàlla daf lay laaj participation. yàlla daf lay laaj participation. boo bëggee ma dimbale la ci boo ma dimbale la ci. looy participer looy participer. foog mu laaj foog mu laaj la ko. mu mu yëg ni. volonté changement. volonté changement. mi ngi ci yow mi ngi ci yow. Ah. ndax. Cheikh Seydi Hadj Malick nee na. yàlla yàlla. neexal ko. neexal ko. moo gën a yomb moo gën a yomb. waxul nax ko de. waxul nax ko de. jéem koo nax jéem koo nax. yàlla neexal ko. yàlla neexal ko. moo gën a yomb moo gën a yomb. jéem koo nax ndax inna allah. laa yuxayir maa bi qawmin xataa yuxayiru maa bi anfusihim bu la sa jikko doyul rek participer leen te mooy nag nga am volonté pour génn ci yàlla fekk si la waaye nga di ko wax noonu rek nga di ko wax ndax dañu ni suñu mbokku séeréer ba suñu mbokku séeréer ba xaw ma séeréer la xaw ma tukkulóor waaye doom jee feebar waaye doom jee feebar mu tiim ko di jooy mu tiim ko di jooy ni ko man man de boo jógee boo jógee dama lay dama lay yóbbu daara nga jàngal doom ji jooy ko bàyyi ni ko bàyyi man bëgguma dem jàng man bëgguma dem jàng alxuraan mu ni ko noppil mu ni ko noppil damay nax yàlla damay nax yàlla rek yombul yombul fa tabaarakallah mag ñi li ñu mën yëpp def nañ li ñu mën yëpp def nañ ko. li ci des li ci des daal ci suñu niveau la. barakallahu kenn mënu leen a tuumaal kenn mënu leen a tuumaal. kenn ku ne kenn ku ne. la nga defal sa njaboot la nga defal sa njaboot. sa jaan wàcc na li ci des nag ci njaboot gi la des. fexe ba xam fooy jaar fexe ba xam fooy jaar. pour jëriñoo seen leer seen leer. moo ci des de. sëñ Babacar. ci sa tur ci sa tur. ñi ngi sant nag suñu mbokki militaire yi sapeur gendarme policier soldat ñëpp kenn ku ne bokk na ci mbir mi ak sa yéene ba def loo mënul kon nag ci turu sëñ Babacar mi ci turu sëñ Babacar mi toog ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla taxawu leen mottali leen mottali leen seen service lañ ca bëgg yàlla defal leen ko ci barke borom guddi gi sëñ Babacar nga joxe ñaan yow barkeelu tabaarakallaahu sëñ Babacar ne ñu bokk rafet njort rek te bañ a naagu nee ndax Cheikh Seydi Hadj Malick dafa wax ni dafa wax wax ju yàlla ànd yàlla dafa ni sama buntu tëjuwul sama buntu tëjuwul ku dem ba yëg ni ku dem ni yow ni nga war a mel dellu sil Cheikh Seydi Hadj Malick ni ko soo melu woon noonu soo melu woon ñu jaaxle law kaana baabuka laa yaatihi zu ithamin fama duxita gafuran kulla aw wëlbatiku nag wëlbatiku nag ca teggin ya ni ah def naa lu ëpp nag xaatabtu rabbi xitaaban laa yaliqu bina faxfir faxfir li abdin min al ahaami xayaari bare bàkkaar rek moo ma tax a tiit ba waxe nii waaye ñooñu fu ñu toll naan la dama am bàkkaar yow fi nga toll fi nga toll yow di yett mustaas doy na waar tàllal leen loxo yi wax leen amin سعد من في دلا زره إن جندا من خياف قد سرى